benn bi ci jëkk lan moo ne ci teral gan yonent bi lu mu jàngale akrimu dayfa ida ataakum man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal ku gëm yàlla gëm bis te dina teral ganam mu ne yow Cheikh Ibra saa yu gan nee ci sa bunt asalaamu aleykum may yaa di saafante waaye tataawalu kulluhum li nay ni baakada te kenn jutul ci yeel te kenn jutul ci yeel yaaram bi nampal moo dem gars yi yu xamtiku nañ ngir di la séentu ak bëgg laa jot yow Cheikh Ibra waaye ak si wuñ sa yeel yaa sut ñëpp yow Cheikh Ibra Fall gaa yaa ngi toqante ko ngir bëgg laa jot ak bëgg laa séentu nañ ne ñi xam yàlla nag ñi xam yàlla laa waxal de ñoo moom lii de la Cheikh Ibra Fall daan wax bu neen ndigal ñi defee ndigal a tax waaye bu may wax ña fekk yëf yi laa wax de waxuma ñii de gaa yii na fii waxuma leen waxuma leen de mais yii may gis ci dëkk bi mbir ñuy wëndeelu nii bëgg a gëm yàlla gi xam ne diine joo xam ne ci comportement lay tege amul koo defar te kenn xamul ku la defar nooy jiite ñoom seen boroom xam-xam yee ko waxoon euh, abu madiana al maghribi ak euh, imaamul junayd yi waxoon nañu loolu waxoon nañ ne sa waay boo bëggee yéeg ci garab gi te doo laal datt bi mënta sotti wutil wasila wasila moo mënta ñàkk ñoom imaamu Shafii da leen a dajji seen téere yi boo xoolee am na fu ñu di taxdiru taxdir li inkaaril awliya man damaa xamul dañ ko du jàng xamul lu leen dal wata nag bët yi leer na waaye du gis ka ca biir a koy gisal xol bu lëndëmee borom du xam te gaa ñi fa innaha la taamal absar walakinaha taamal xuluba lati fi sudur kon mooy koo xam ne yow Cheikh Ibra yaay ki nga xam ne may yàlla yu rëy moo daje ci yow yaa di koo xam ne moom la yàlla may ay dameel di ko raamal di ko sukkal maanaam nit ñoo xam ne ay nit yi maanaa lañ di ay soxna yu mu dëkkoo te kenn ku ci nekk yi borom cër yoo xam ne démb ca démb seeni maam dañ doon yilifi waaye wa kullu man qaraa maa qad unilta yakun di roy tax di xam ne du yow yaara bi dam faal ku gis li nga am xam na ne du la def moroom la muy yéem mooy roy am na ko sëñ ma masa wax ne ko ana loo bëgg ma defal la ko sëñ bi da ko wax ne ko ana loo bëgg ma defal la mu ne dënn ba yàgg mu ne xanaa mel ni Cheikh Ibrahima Fall sëñ Tuubaa no war ak man ko gënaaw na ko fàttlu noo fàttlu noo fàttlu na mooy fàttlu mel ni Cheikh Ibrahima mënut am dimension bu toll noonu di ko dëkkoo ci Cheikh Ibrahima Fall moo tax ku ñuy wax Sërif Mulaay Abdul Xaadir Jaylaani ay dara moo ma waxoon lii may bëgg na ci te ñëwoon na fii ma introsé ko mu yor 10 millions mu teg ne ku mën a indi fu Xaadimu Rasuul nekk ci alxuraan ma jox la ñu def ko ay jataay dem naa ba fekk ku dëkk bu ñuy wax jululu ngir topp ko ci gëstu yooyu mu ne ma xanaa xamu senegal coow li li muy bari bari xetu takk ndeeru Sëñ Tuubaa moo fi jaar xetu takk ndeer bi waaye takk ndeer bi sax jaaru fi xetu takk ndeer bi rek moo fi jaar mo ali ligay gis lépp daan na man awliya awliyaa ulaa mom serif sëriñ Moulay Abdul Qadir jaylani ayda momako wax te bu yàggu rek la mo mujjo wo téléphone. momo wax ne ma mo lépp awliya ulaahi yi bu ni yegay gem ci sen borom ci mbiccum Cheikh ibrahim Fall ni lank serif momo wax lo te ma ngi fi ak cheikh yi arrêté woon naa ko ak Lam Fall dem na ba jullu lu fekk ko kon ñi yàlla may cër yoy xam nañ dayo bi yàlla jox Cheikh ibrahim Fall. mu di koo xam ne it wala yudanika fi hada al ata ahadun buur yàlla moo la ko may yaaram bi naam fal may yii nga am yow Cheikh Ibra kenn du ci gam-gam la di ci jéem a dendandoog yow yàllaa la ko jox yàllaa la ko jox waaye ku lay sikki sàkk rek na mus ta xool ba xam ki ko doon mu ne innal wufuuda jamian waa waaqifiina ataw di déglu tey say ndigal yaaram bi naam faal wala yuqaarifu amra man amarta fahum ñooy jaam yu dul daw du yokkat cheikh bi faal loolu mi melo nag ak melo yu rëy yi ko suñu borom di jagleel ak doxin yu yi mu am ak jëf yu yi ko suñ borom di jagleel loolu lay indi kon ba tey yaa di koo xam ne it gaa yu baax ñi mboolem gaa yu tari yu dëgër yi ku ca masa song jëm ci yow it yow Cheikh Ibrahima yaa dénd ñépp daan waaye kenn mësulaa jot caw melo xooloo min ataayika aw la aw damil ataw di daw di raam ba fi yow yaaram bi naan faal Cheikh Ibrahima du même porte kii moo ko topp mooy koo xam ne ñi nga xam ne tey boo leen doon tudd da nga leen di tudd ci melo yu gën a rey di leen tudd ci melo yu gën a mat yooyu nga koy fekk waaye awlaadu gërmi abidun anda bayti gadda ñi nga xamne ay gërmi lañu ñu bu ñu ñëwé ay jaam lañu nekk sa bout yow Cheikh Ibra Fall kon Cheikh Ibra ñe gëna nobalé doon borom cër seen imam tay bari na ño xamne ñi ngi ñi ngi contexte Cheikh Ibra Fall ña daan ramal Cheikh Ibra ñoña ño yilifon seen imam bari na ko xamne tay boko boo gisoon ñu andi mamam ba dé dee xeet loxom buum yuñ ko yéwé ca ne ko ñala yilifon nak nag sa mam yoyé ñom ño daan ramal Cheikh ibrahim Fall yaay koo xam ne it ku gis li nga am ci ay melo la def mooy jóg di la waaye du fas yéene jóge benn mel ay mbooloo yuy ñëw taxaw fi sa bunt innal wufuuda jamian waaqifina ataw di déglu tey say ndigal yaaram bi naam faal ay mbooloo ay kuréel yu bari ñooy taxaw di déglu sa ndigal te kenn du jooyoon ndigal loo digle xoola wala yuxaalifu amran man amartafahum kenn koo xam ne Cheikh Ibra na la nga jiwee moom du am mooy la sëñ Tuubaa waxoon ko rek ne Ibra Fall bu ma xëyoon bàyyi it àndal duñ ko baax loolu nan nga ko mën dégg ca maanaam mooy da koo jënd ba mu jar mu am ko moom Cheikh Ibrahima Fall ci digganteem ak Serigne Touba moo tax Serigne Ibrahima Bousso moom mbir kilaan ba muy génn àdduna dem ba nga xam ne waxatul baat bi mu mujj bind ci suuf da ne kuunu ka Cheikh Ibrahima Fall loolu la Serigne Ibrahima Bousso bind mel leen nekk leen ni ki ni Cheikh Ibrahima Fall meloon nekk leen ni ki Cheikh Ibrahima Fall ci melo woowu ak doxin wu rëy woowu am na ku ñuy wax sëñ Mor Diouf Jatti sëñ Mor Diouf Jatti ci ñi jaayante woon Mbàkke Kajoor ci la bokk 90 91 bokk na ci ñi sëñ Tuubaa jëkk gërëm wàcce leen ci bi sëñ Baara ganee jamono dafa am bis sëñ Tuubaa yónni sëñ Mor Diouf Jatti sëñ Mor Diouf génn dajeeg Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall na ko kaay ma yónni la Mor Diouf jëtti sëñ moor juuf dem doxi yónneenub Cheikh Ibrahima Fall ba ba noppi door a dem doxi yónneenub sëñ Touba bi bi ñëwee sëñ bi ne ko yow de Mor yàgg nga mu ne ko Cheikh Ibrahima Fall ma yónni woon sëñ Touba ne ko baa dem nga dégg nga Cheikh Ibrahima Fall ma yónni woon mu ne ko baa dem nga mu ne ko waaw damaa dem mu ñëw door a dox mu ne ko Ibrahima Fall da noon lay def. ndax lu ma duy mu bëgg ko këpp lu ma nga xam ne kenn du dangaalu ci wetu Cheikh Ibrahima Fall moo tax mosoo dégg na mag mu ne la nee na ci keppaaru Sëñ Tuubaa contre Cheikh Ibrahima Fall doyee dal Cheikh Ibrahima Fall yëpp Cheikh Ibrahima fal ba léegi barke bi tisaaroo ci kër suñu tujuwaat di dox ci këram mosoo ko dégg koo ma sa dégg ñu ne feeroo na ak Cheikh Ibrahima Fall lum ne la xañ naa la ko ñàkk nga ko lum la mas a xañ loolu nit ñay gëstu ko lañ xam ne koo ma sa dégg ñu ne la contexte na Cheikh dal ci ko mbir xew amna lu xewat ci mom lolou ci bu rëy le bu ko yàlla jagleel ñim gisul seeni ndab ah dana néew ci ndab yu mat yoy ci digganteem ak Serigne Touba mu di ko xamne ne wa anta ajmadu aqran az-zaman maa defu werante ci lii yaaram bi nam faal molem ñun jamon molem xërnu yi siècle yi ci gëna tabe yow Cheikh ibrahim Fall manam tabe ba tabe jeex nak dañuy wax ne tabe ci sa bakkan ak sa daraja ci raw Cheikh Ibrahima Fall dafa tabe ci darajaam te ni meloon ci sëñ bi la mel ci bokkam sëñ Mbàkke Bousso naa ñëw njëriñ di indi addi yi sëñ Tuuba Cheikh Ibrahima Fall seen Cheikh Ibrahima Fall di yi gis sëñ Mbàkke Bousso jël ko jox ko na ko am ndax yaay mbokkam xoola woowu jàngale ak melo yooyu muy jàng moo tax defe naa marché yi boobu sëñ Moulay Bousso def ci moom bu bu ko gën a yéeme gën koo fees jafe na ca tàmbale ci xat bàyyi Cheikh boobu sëñ Moulay moo ko def di ca jàngale Cheikh Ibrahima Fall ak position bi mu amoon ak nim nose li tasaaroo woon ak lu waroon a yàqu lu ne ni mu ko defee te yàggees na ko woon wane waneelu yoon Cheikh Ibrahima Fall yàggees na ko wax yoneelu yoon ndax mooy kii wane yoon ndax mooy babul muridin loolu sëñ bi def ko ko nangu waaye ahlul xawaay ji jaau laazimina bu ko fi yow ku del si day ree cheikh bi naam Fall loolu kon jikko ti bi la mushkil li shakil bi shirun li bakkin bari waa na ko bu daan ñëw ci se buy ñëw ci Cheikh Ibra da koy gën di wet gu ne bu ak see rongoñe day toq toqi ndax jaaxle ak fu muy fajoo nee na buy génn ëttub Cheikh Ibra Fall ba day ree ndax faj ko ko Cheikh Ibrahima Fall di faj loolu sëñ na ko ca wayam woon nee na ana kan mooy dimbalati jirim yi ñàkk yi ku leen di taxawoot yi way néew doole yi ku leen di wéttileeti ana kuy ñoddeeti nit ñi tàbbal ci yoon wi kuy tax di wéy loolu la sëñ mu lay waxoon keroog bi Cheikh Ibrahima Fall faddoo mu ne ana kuy waneete lu mel noonu yaay koo xam ne yow Cheikh Ibrahima Fall kon lakal wilaayatu bay na na zaahira sag wàlli yooyu jëkk a feeñ yaaram bi naam fall te kat loo gis ci moom wilaaya gee korom wilaaya ak Cheikh gaa yi xam nañ ko de ku mas a wax banqal sa tànk nga dëgër bopp ni ko sëñ Cheikh Ndigal doon waxee léegi bu nee law xët fuuf na la jag dukk dukk sànni ci bitti na doom ñàkk a xam bu del see guddi jot nga defaru ba jekk lal sab der naafi la yor sa péricouris di rotal ngir ne naa jéem a dem ca kaw dégraté Cheikh Ibra Fall asamaan soo jukka rom fa nga koy fekk mu laal la laal yu raw yi la laal yoon suuf boo del see xam ne mooy waaji boo leen dajee sa dox da naan sëgg na cell yooyu la boole woon ak wilaaya ma jiitu moo leen ku mas dajal fi suuf kon ak wilaaya moom defe naa comme kenn mënta seen wilaaya gu toll ni wilaaya gi yàlla defal Cheikh Ibrahima Fall ndax lu lu làqu lu sori lees xamul nga xam fa mu nekk loolu tegtal la ci wilaaya gi ak rëy gi te turwe na sëriñ bi la sëñ Tuubaa waxoon rek ne sama bu ma kenn doon xam sama jëkk Ibra Fall xam ma waaye bu ma kenn doon xam sama mujjit isa jenn xam na kon ahlul balaagati wal ashari qaatiba mosuñu fee wax lu mel nii cheikh bi naam fall hum yamdaxuuna faqat lakinnahum jahiluun yées nañ lii ma wax yaaram bi naam fall kenn mësta wax lu toll ni lii ma la wax ñiy tagg réere sax lu mel nii ba indi ko ci cheikh bi fall waaye xat fuqta haaruuna fii juudin wa fii karamin sa maas gi tey yaa ci sut yaaram bi naam faal yaa raw aaruna ci ak tab ak tedd nga sa maas gi yaa ci jiitu yow Cheikh Ibrahima Fall yaa ci raw sa maas gi yaa ci raw law yam daxu shuara kullul kiraami maa ma way le man yaa ma saf yaaram bi naam faal bu fekkoon ne waykat yépp dañoo jóg di way gaañu baax ña man ma jóg yow di la way yow Cheikh Ibrahima Fall lu tax ma di la way mooy yaay ki ma saf kon loolu la jàngale te noonu mu meloon ñi bokk ak Serigne Touba ñëpp noonu lañ meloon ci moom njabootu Serigne Touba gépp noonu lañ meloon lu tàmbale Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim buñ la doon wax digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall Alaaji Fallu Mbakke doy na ca misaal koo xam ne dalay tudde ab sooroor yemu ca boo demee ci biir këram fekk fa Cheikh Ibrahima fal doy na misaal te boo wëree ci biir kër sëñ Touba noonu lay mel kenn ku nekk Serigne Saliou Mbacké mu baax mi nga xam ne foo ma sa tudde Cheikh Ibrahima Fall ay xéewalam daanu cib dënnam ngir warmaal ko ak xam kim doon ak waggar ko ak cër bu rëy bi ko yàlla jagleel kenn ku nekk nangu ko loola it moo tax boo seetee biir mag ñi mbokkaloon sëñ Touba sëñ Ahmadou Fa Jamañang daana wax ne ku dul Cheikh Ibrahima Fall kare yu bopp lañ nuroo kon ñëpp nungulooñ nañ ko ak jiitoom ak cër bi ko yàlla jagleel mayu yàlla nag te sañ-sañ la am ci boromam yàlla ko ko jagleel sëñ Tuubaa nungul ko mbiram bokk ci ñi xam nga bis bii ñuy def muy ngërëm lim ko jeg 1927 gaaw dimanche gaaw bi dimanche yi sëñ Tuubaa fatoo alterné ja ba nim ñibbisee euh, Tuubaa gaaw boobee bokk na ci ñi sëñ Tuubaa mujj a gërëmaat Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne woolu na ko ba ñetti baat la ko Ibra gërëm naa la Ibra Fall gërëm naa la Ibra Fall gërëm naa la kon wan ko melo gërëm ko ci doxe ñu nekk Cheikh Ibra Fall yayoo kon nag loolu day wane ne doxin woowu ko yàlla jagleel may ko waxoon naa daal ne yàqub jàmboo ku ci sa biir daw da nga waane rek Cheikh Ibra ku ne am na loo war a lijjanti sa kër xam nga dégg nga fi man mënuñoo mënumaa yóbbu nit àjjana diggewuñ kenn àjjana loolu lépp ku ne sañ na ko loolu moom ku neex nga wax aw ma dépasse sañ na ko wax sama soxna dama cee tëlee mënu mëna ma ko dara yow la concerné lu ne waaye mën na ko wax waaye góor néew fi moom moo duti wax loolu la kenn dut wax Cheikh Ibrahima Fall sëñ mu dem mu baax ma Cheikh Ibrahima daa ma sa yónnee jëw am masala mu koy laaj sëñ mu dem na ko ah bu doon ci diine Cheikh Ibrahima de danaa ci bàyyi ah, dem jàmbaar la waaye ni ñu xamee Cheikh Ibra sañ-sañ bi lañ xam sañ-sañ ba lañ xam lam ca teg ci ngay xame ne sañ-sañ ba lañ teg koo xam ne yaa nga cay laaj misaal ba neex la nga ne xanaa bu ma ràmmoon nangam ca néeg ndeyam ràmmoon nangam ci néeg baayam loolu wane na sañ-sañ la aw doxin lay jàng kon fii jamono tollu léegi ku jóg na Cheikh Ibra ku jóg wax Cheikh Ibra nangam te bari na ci ñooñ Cheikh Ibra Cheikh Ibra ngi leen di dimbale te ñoom xam nañ ko dañ ko mënta ñemee wax ci kaw nag xam naa fii ñoo xam ne bokkuñu sax ci yoon wi te waxtu woo waxee ne Cheikh Ibra man ñoo ma waxal seen bopp ne Cheikh Ibra Fall nee na nikk sama loxo yëkkati ma ci kaw te loolu loolu loolu loolu ki ko wax bokkul si yoon wi te man dañuy bokkee jataay maa moom te mun bokkee jataay damay dégg muy wax Sidi Ibrahim waaye après <laughs> moom wax na ne gis na Cheikh Ibra téye loxoom nag ma ne ko ah xam naa ne xaw ma yow noo ko mën a fiire firéele ndax ginnaaw bokku ci mu yëkkati sa loxo xam naa da lay junj rek na la feeg yaa ngi def nii di jëm ci kaw waaye kenn laa aw tekkin la laaj ginnaaw am nga daraja jooju nag am maqaama mu nar laa dimbale del sax ci wax Cheikh Ibrahima Fall ak nii mu mel tabañ ko rus sans complexe looloo tax fii jamono tollu léegi muy jamono ci tigee jamonoy média jamonoy werante jamonoy xul jamonoy wax ku am li gën nga koy wone yàlla xam na ne gis nga li yàlla defal Serigne Touba bal ko njabootu Seyxul Xadiim kenn mënta am lu mel noonu baa nga gis ko kenn mënu ko kon ndaw ñii di doore ñu nouvelle génération bii bu nu dara fab ni ko si sëñ Moustapha doon waxee léegi bu nu kenn dox suñu digganteeg liñ gëm ab murit day am fulla bu ñuy wax nga toog di déglu ay nopp déglu lay jariñ mais pour ñu convaincre la moo war a jafe kiy wax bu waxee ba yeggal nga naan sa guuxu ko fa yëngal sa bopp na sëñ Tuubaa amul morom jaraw la ko Seex Rafal boo xam ne léegi ko dugg loolu la murit di mel yor wenn melo yor jikkoy dóom koo laal mu weex lu la laal weex te waat naa ko ci yàlla ñi niy da gaa ñii ma gis li ñuy dagaase moom la ñuy encaissé ku leen gëm képp la nit kay bu mën mu doyee wutub GIE wala association. <laughs> wala nangam ngir ngeen ku ca bindoo wala sopp ay soppe ngir ñu daje di la musal dara bukkuleen daayira boo xam ne dañuy sol bula blanc baa ñu sol noir jaune yaakaar Cheikh Bachir Fall alxuraan ami daara di bay di ko jox di liggéey bu leen di ñaanal muy dal li ñuy bëgg ñu di ko am loolu boo ko mënta am da bëgg a ñëw ci biir rang gi bëgg koo dagg te kenn du la rang ku am lu wóor kenn wóoru la dëwyee barki dem mang ci wax ak nitu aduna mu ne lima jaaxal ñu bes ñi ñew di fu wote da préfet la de mo na ma ñu bes ñi bëgg wote woote espace lañ amul manam espace fuñ samp li ñi wote lañ amul ndax fekk na ñun ñu gëm yi ni gëm ba mënu ñu fexé ban bayyi ñin gëm ñu ko fexé Cheikh ibrahim Fall même am ñu ne ci yoon comprendre wuñ ko mas naa am genn fa may wax ak mom ci Cheikh ibrahim Fall mo na ma mbiram lima jahal jaaxale ma ne ko so mom jahal ma gëna a jaaxal ma mo na ma man ah, yow ci geej gi nga ci geej bindoo téere yi yow defaroo defaroon te ku la gis njimbi mbaxana sukkuraam ngay tuf li nit ñi ñuy raayoo te li ñuy wax xamoo lu ko gën di xam baax daa am mu ne ma amoon ah, nañ gànn ma ne ko moo li walaa lee nag li lii moo walaa bal moom kay na nangu lépp sëñ Tuubaa moom jàpp lépp baaba lépp rek ah mais lu mais da am am leen lu setantal diw bu ne bu newoon mbàkk yi ngi ñëw nii léegi ñëpp defaraat seenu toogin dàll yi naaw mbaxana yi naaw ku ne làmb sama suut loo ko jox te moom mii bi lu jub téere géej gi moom kenn ci kàmbaroon liggéey yi ñëm kenn ko defoon waaye yow sant gi nga sant moom mu sant ko nga sant ko képp gaa ñi lijjantiwuñ foo ko bokkee ak noo ko sant yow da en tout cas moom nga rek seen nañ la naaw boo ko ku la wax dara ñu xas ko ku la bañ nangam nangam loolu loolu loo ko gën di xar baax amul seet moo tax léegi ma dégg sëriñ bu ne nañ bàyyi waxtaane xar loolu kay moom nañ bàyyi jëf xar baax nañ bàyyi dem tool yi xar baax jur jox la nga yóbbu ca daara ji ta ku waxal fi ne ta dom yo yóbbu ci daara ji fi ne mo lay gënal ñu lepp ci kër sama sëriñ la ko jox sëñ bi ko diw sëñ bi lay liggéeyal sëñ bi neena ma jambar la fi ne kooku nga yaakar bo deewoon sa da ngay bëgg muju ci yow ndax negam na ci sëñ ta loola yaakar jooju du tass ndax suñu tuba neena duma tass yaakar yaakaar it ma yaakaar loola tax ñu am complexe fi ne buñ toogee wara a waxtaane sëñ tubaa nee na dañuy dajé wara a Cheikh Ibra Fall naan nañ waxtaan ci économie légui nak économie mi ñi waxtaane li ci gëna graw dañuy woy oustaz boo xam ne dañu koy jëli bu noppee delloo benn moom amul wata bu mu ñëwee amul bu delloo kon jëndul gasoil kooku économie suyee ci dara moom léegi nay lay jàngale jàngale économie nay lay jàngale moom nay doo nga lay jàngale ndax na naan bàyyi leen yàq gi ku amagul lu muy yàq léegi li ñu war a jàngale mooy Cheikh Ibra fal nan la mënoon a tëniire nan la mënoon a muñee nan laa moon njàmbaaru mën a dëgër taxaw ci biir kër sëñ Tuubaa xuus ba bu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah na jërëjëfa sëñ Tuubaa na jaraw la ko Cheikh Ibra Fall fan la Cheikh Ibra jaar ba li am ñu jàngal nit ñi jom ak ngor ak fit ak dëgg loolu la ñu war a jàngal waaye ay pexe ki lijjanti bu ma ko jàngalee ñun ñëpp dañuy defe ne dóoree tax mu jàll moo tax ci biir yoon wi ngay gis xaftaan bu rafet maxtu mu baax borom amutum xëy du lëggee dóor rek ak ñooñu nag saal buñ toog kan ne ca saal ba lam bëgg la ñuy wax boo ne Cheikh Ibrahima Fall ñu naan waaye dañ di daanu kat rek nag waaye defe naa Sëñ Tuubaa waxewu ko woon noonu fekk cent mille yi muy xaar waaj waa ak dix mille francs yi muy xaar ci waa tam nit day lu ngoo liggéey ngir mën a sàmm diineem te yoon wi looloo ci bari amuñu lu ñuy def ñu ci bari amuñu lu ñuy def fasaale rek ëskey rek Sëñ Tuubaa mu moroom xéewali sëñ bi du jeex ci yoon wi ngay gis ku ngemee risque bu toll ni amul lu mu yilif ba ne sëñ bi dama teral man sëñ bi ma teral buy nuyu sëtu Cheikh Ibrahima Fall wu ko boppam cati baaraam lay joxe moo ne yëg gim ci yëg boppam mooy sëñ bi ñëpp la fi nekkal ah ñëpp la fi nekkal du ñëpp ñëpp fi nekkal sëñ bi mais sëñ bi daa am ñu fi nekkal sëñ bi pour pour ñëpp a maanaam noonu pour sëñ bi lañ mais sëñ bi dafa am par parce que xabar boobu xam ña ba mu jar ñoña mom fa sabiqun saabixuun ulaaika al wa man tadaraka dañ koy dalal leen xel nga bëgg bokk ci ran gu jëk gi ci yoon mi ngay gis fitu wu toll ni mo fekke won jamono Cheikh da ngay dégg ko wax bu ma fekkee jamono Cheikh la te kenn sëriñ mboolem ku yab yoon wi wu ko ci kër Cheikh ibou Fall bay Fall ci service bay Fall ci dëggu bay Fall ci nungo liggéey bay Fall ci njambar Baay Faal ci sàmm bay Faal ci fit bay Faal ci ngor waaye nag hôpital boo dem am na mar nii ñu sikkale naan murit nangam boo demee ci tiijaan yi am na fu ñoo xam ne nañ mel bokkul ak sàrt tiijaan xaadir yi am na ñu mel noonu nang hôpital boo dem am na margo booy dugg si ci hôpital bi nag yam ci kunte kib sérieux di puus jëmee ca margo bay denc nga ne hôpital bi ku fi dugg dee da ngaa daje ko war a dee waaye am na ko génn di ñibbi koo xam di faju booy wër murit wala ngay wër Baay Faal ñëwal ci Baay xool ko ci extérieur xoolal ñeneen xoolal toogin nii tey di seeti Cheikh Ibrahima Fall bu ne woon kaamil bi réer na léegi bala ñu ñibbi ci guddi gi bind buñ laajee charia ñu tontu buñ laajee nangam ñu tontu ba noppi di boroomi julli di boroomi ngor bëgg sukk ak raam wane melo ñii ñoo jàngale nan la nit ñi mën a nekk ci ëdd pour du ëdd la jag président yeeg yëpp bu mënoon am lii am ko mooy fexe ba kenn du la contre loo santaane nu def loolu yàlla ci ci biir nag mooy ñoo xam ne kenn xamul seen sëriñ man Baye Fall laa rek lay wax Baye Fall baat boobu dong la waxoon naa ko fi daaw man Baye Fall laa rek man xamu fu mu bokk Baye Fall it ku jóg ba koo doon sëñ Abdou Khoudous suñu borom daarul Muxti daa am ku sa jëlee ay tubaab bitim réew ñëw na ko dañuy jébbalu ñii nag ay Baye Fall la Cheikh Abdou naa gën a gaaw doon na góob jullit bay doon murit yegg ci Baye Fall ah gaaw ngeen ah mais Baye Fall Baye Fall xoola jullit murit Baye Fall da ngay Baye dafa nekk ci catégorie gi gën a jafe. da ngay nekk mu'min muslim muhsin door a tudd muriid lekk nekk mu'min muslim muhsin muriid door a doon Baay Faal ab jullit gëm yàlla jëfe sa diine di muriid nga nekk point boobu door a ñëwaat nag doon ñeent yi ba noppi nag door a ñëw nekk Baay Faal motax tax Baye Fall mo gën ci profondeur ba mo gën jafé yegg man nga nek julit te do doon murit man nga doon murit te do doon Baye Fall Baye Fall nak boko doone sanu saan wu jëm lépp la moy rassembler nga yépp yow yaay ki yalla bëgg ni man moy Baye Fall kon du luñu foyé ci mbett lenn lu la ci nit di wara xol addu bi yegg fo xam nak dañuy touché ñëpp touché señ Touba touché Cheikh ibrahim Fall ndaysan murit gi na ciel léegi lu way wax nangam nangam ben way dafa ma woo ci États-Unis nama ganna de deg na ni ngay tonto mais dama bëggul ngay sóoraale manako ñan lay sóoraale mune ma suñu bokk nak manako da nga ci am xarit mune waaw manako dama ci xamu kenn man bay ci sóoraale xawma ci kenn te yow ñaar fukkat ma ngi wax teranga ju ne defal nañ mako musuma gis sa jot ñew ci bu ma fi ma sa wax lu may yeddeet musu ci bokk kon bisu tey bi do ma wax luma deg yow jappal sa way rek ba ma ci li barki dem mu war ma ne ma gànna neexul ba neexul nak man dama jappone yaay togn waaye nak noonu lañuy togn tooñ ko yow da ya tollu foofu waaye man ba joge la xam lima xam man rombu na foofu seigne Touba da ngay téla comprendre ne gis nga jur mam diw mam diw maam jur mam diw taxul jariñu seigne Touba bu don taxa jariñ Touba mam Mor Jaara mok seigne Touba bokk soxna Jaara bokk seigne Mor Selis mam Mor Jaara da sukuram jébbal bopam seigne Touba sëñ Touba li ñuy jariñoo ci moom mooy nii Cheikh Ibrahima Fall def jëf liggéey moo ko may li mam bu doon ne ku bukkul ak sëñ Touba doo am li ngay wut kon kay sëñ Touba kon fan lañ ciy dox jëm fu ne waay sànni fa sëñ Touba aw xeer la ci àdduna yàgg nañ ci di wax ne di jël sax ay bayitam di ko changé gis naa fii ñu ne xaddil wiqaayatu sëñ diwa ko wax déedéet xanaa dañoo fàtte ne boo demee ci fatxul فتاح في مدح المفتاح لبي وونك بنن بنك تي فتوح المكرم في مدح المكرم واخي سيغن بي مي قد الوقايه رجل مجي تبا من شوكه ما يضها اقرب اقد جعلته ترابا نعله يا ليتني لحظني بفضله سي نياري قصيده يوي لا نيك فتل فتاح في مدح المفتاح فتوح المكرم في مدح المكرم باتي توبي سيغن توبا دوخالي ول ديغنتي مك رسول الله كان ديغنتي مك يالا كودو رسول الله وسيلتي عبده المختار سيدنا هو الذي من ابى تقديمه وقفضه وقل لك كان يا ماي سير انا ماي خادم الرسول لا يلا كو جك سير شهيد للباقي باني القديم وقدمتي للمنتقى بشر يدوم مدلي المختار اسرارا تدوم ومالكي جعلني له القديم farraxañen akram tafrixan yadohum bi ana ni xiloo ibul xadim sëñ Tuubaa xam nga ñan ñoo ko seeral ne mooy xaadimu rasul nee na raqiban atid li bisa raqibun wa atid fi kulli yawmin inna sil arsil majid sëñ Tuubaa ne waxtu wu nekk malaaka di raqiban atid dana dem fa yàlla na ko ahmadou ba moom mooy xaadimu rasul kon du ko seeral mbindeef ak njaboo tamit dénk ku yàlla bind yàlla la ko dénk léppam du ko xëpp jumlatu maali wal midaad wal xalam hadiyatun lil mustafa bi niam juttu lahul yawma bi ruuxi wal ci biir kër sëñ Tuubaa ngay fekk mag muy naafila téeméeri rakk sëñ Daaru Assane Ndiaye mi ñu tudd bis bii téeméeri rakk la sëñ Daaru daan naafila sëñ Daaru Assane Ndiaye moo waxoon ci làmmiñam ne kenn ku ne am na ñaari malaaka sa mag mii di Munkir mii di mii mii di Atid sëñ Daaru nee na xaw ma malaaka mi bindu safaan mi xaw ma dana ma bind lu yiwam waaye mi bindu safaan du ko ndax du ma ko def maanaam assuré naa ne malaaka mi bind bàkkaar du ma bindal bàkkaar te loolu mel la sëñ Omar Diop keroog bi ko sëñ tubaab bi ba mu koy jot loog nuyoo sëñ Daaru na ko ballig salaami ila jaarika alladi ismu fi'lu ismi jottali ma sama nuyoo bi nag sa dëkk rojo ñu nga xam ne ni tur yu mel ni la jëf ji mel muy sëñ daaw maanaam asan ji rafet jëm rafet noonu tur wi rafete ni la jëf ji rafet te mag ñi noonu la ñuy raamale sëriñ Touba kon sëñ Touba daal amul lu mu amul lu mu jëggaani sëñ Touba yam la yàlla may ay jagleem sëñ Modou Habib moom borom daaru maxti borom daaru bay baay julli sëñ Tuubaa ko tere woon sëñ Habib sëñ Modou Habib moom borom daaru maxti am na bis mu di julli sëñ Tuubaa gestu daan na ko santoon daani gestu ne ko demal ca lañ loolu na ko ku jëppul dund ko jàkkaam doomam ji di ko soxna may mën a kubra ba noppi digaloon ko luy mbirum sëñ Tuubaa ku ca bokkul dañ cay man boo tax sëñ Tuubaa moom gis nga ceeb bi neex la te su koo lekk gëmoo ak murit moom kenn duñu ko jàngal ku dutu murit loolu la kenn warta jéem a déglu sax mais médecin médecin médecin médecine ku jàng médecin moo koy jàngale politique politicien moo koy jàngale waaye koo xam ne raw yi buum lañ la xamee nga toog di wax naan booy opéré booy def nangam ko def sa kollu mu rey la sëñ Tuubaa ku koy jàngale da nga koy dund bokk ca xam ko bokk yi ku bëgg loo wax man nga ko wax ak bokk ngi fi lu rafetame ngi manes na ko waxtaane mais sëñ tuba mii daal ku ko bokkul mënoo ko wax mënoo ko wax kat ndax lamu lamu lamu sax ka ko macce ko xam lamu lamu sax ka ko macce ko xam lii nag bu dee nax bu dee nax baax na xam naa ne xawma yomal xiyam de moom man waaye adduna moom wóor na ma ne moom sëñ tuba lu ci tas yaakaari kenn régler problème yi sëñ tuba koy defee fii moom wa man raama min al baraaya hët hët mi tabba ku ma bëgg a torox fii la koy réglé sëñ góor a njaay ngi nii kat kat la yoon te du bay demoo woon Europe musle ndox yoroy sunguf jaayooyu reen taxaw na sëñ Tuubaa monom képp loolu nag moom adduna ji teel na ko réglé situation fii la teel a réglé amul fooy rek loo bëgg am manes naa romb lool fii fii adduna bi fii la tàmbalee situation fii la tàmbalee réglé loolu loolu moom lañuy xool kon man maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant sëñ Mbacke noo ngi sant bu baax Fall di la gërëm di la bu baax a baax yàlla suñu borom yàggal leen te dëgëral leen bu baax a baax am nañ mbégte ci jataay bi lool waxtu wu leen maa ngi koy wax sëñ Xaadim di ko wax it njaboot bi Cheikh Ibrahima Fall mom kuko bëgg yom na xam Cheikh Ibrahima boko bëgge da ngay am xorom fi ne ko dégg ku dul nan café du jang xaside bëggul Cheikh Ibrahima du lèr du tàggoog stress du lijjanti lu sotti da ngay dégg fu mu seetlu ñu ne ko yaakaar jigu la fekk looloo ko waral dama wax ba tay ne mot de passe bi Cheikh Ibrahima Fall wat na ko ci yalla ne kuko di nga do yegg barki khadim rasul bo bokki ci bir yoon bi sax di sikki sàkk biram boo doonub sëriñ sax dafay soof code bi mooy Cheikh Ibra wax naa ko nit ñi ba tey ku ko musul nag doo xam waaye code bee Cheikh Ibra Fall barke Cheikhul Khadim ku ko bëgg yëg dara de ku ko bëggee gis dara yàlla noonu yàlla dimbale ci moom tañ bisab ngërëmam bi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla taas ci barke ngërëmam loolu ba nun ñëpp nu am ngërëmul Serigne Touba sëñ Gora noo ngi sant sant sëñ moo doy daag sëñ Lamp ak jëwri ni muy doon yëkkati léegi sëñ Talla gërëm nañ bu baax waa إن قال ضيف سلام إن باب كذا ما يجي سافانت أعمام شيخ بن أمفال بأن بتجيك لن مو نتي ترى الجن يعني بلوم جنجلة أكرم ضيف إذا أتاكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ku gëm yalla gëm bis na dina teral ganam mu ne yow cheikh ibra sa yu gan ne ci waaye tataawalu kulluhum li nay ni bankada te kenn jutul ci yeel te kenn jutul ci yeel yaaram mi nam fal moo leen gars yi yu xamtiku nañ ngir di la séentu ak bëgg laa jot yow Cheikh Ibra waaye ak siwuñ sa yeel yaa sut ñëpp yow Cheikh Ibra Fall gaa yaa ngi ngir bëgg laa jot ak bëgg laa séentu nag xammee ñi xam nag ñi xam yàlla laa waxal de ñoo moom lii de la Cheikh Ibra Fall daan bu neen ndigal ñi defee ndigal la tax waaye bu wax ña fekk yëf yi laa wax de waxuma ñii de gaa yii na fii waxuma leen de waxuma leen de yii may gis ci dëkk bi mbir ñuy wëndeelu nii bëgg a gëm yàlla gi xam ne diine joo xam ne ci comportement lay tege amul koo defar te kenn xamul ko la defar nooy jiite ñoom seen boroom xam-xam yee ko waxoon euh, abu madiana al maghribi ak euh, imamul junaydi waxoon nañu loolu waxoon nañ ne sa waay boo bëggee yéeg ci garab gi te doo laal dàtt bi mënta sotti wutil wasila wasila moo mënta ñàkk ñoom imaamu Shafii da leen a daj seen téere yi boo xoolee am na fu ñu tax di taxdiru a taxdir li inkaaril awliya man damaa xamul dañ ko du jàng xamul lu leen dal waxta nag bët yi leer na waaye du gis ka ca biir koy xol bu lëndëmee borom du xam te gaañi fa innaha la taamal absar walakinaha taamal quluba lati fi sudur kon mooy koo xam ne yow Cheikh Ibra Fall yaay ki nga xam ne may yàlla yu rëy moo daje ci yow yaa di koo xam ne moom la yàlla may ay dameel di ko raamal di ko sukkal maanaam nit ñoo xam ne ay nit yi maanaa la day soxna yu mu dëkkoo te kenn ku ci nekk yi boroom cër yoo xam ne démb ca démb seeni maam dañ doon yilif waaye wa kullu man xarraa maa qad unil te yakun di roy di xam ne du yow yaaram bi dam faat ku gis li nga am xam na ne du la def moroom la muy yéem mooy roy am na ko sëñ ma masa wax ne ko ana loo bëgg ma defal la sëñ bi da ko wax ne ko ana loo bëgg ma defal la mu ne dënn ba yàgg na xanaa mel ni Cheikh Ibrahima Fall sëñ Tuubaa ne war ak man ko gënaaw na ko fàttali noo fàttali noo fàttali na mooy fàttali mel ni Cheikh Ibrahima mënut dimension bu toll noonu di ko dëkkoo ci Cheikh Ibrahima Fall moo tax ku ñuy wax Sëriif Mulaay Abdul Xaadir Jaylaani ay dara moo ma waxoon lii may bëgg na ci te ñëwoon na fii ma introsé ko mu yor 10 millions mu teg ne ku mën a indi fu Xaadimu Rasuul nekk ci alxuraan ma jox ñu def ko ay jataay dem naa ba fekk ku dëkk bu ñuy wax jululu ngir topp ko ci gëstu yooyu mu ne ma xanaa xamul Sénégal. coow li li muy bari bari xetu takk ndeeru sëñ Tuubaa moo fi jaar xetu takk ndeer bi waaye takk ndeer bi sax jaaru fi xetu takk ndeer bi rek moo fi jaar moo ëlli li ngay gis lépp daan na ma nag awliyaa ulaa yëpp moom sëriñ Moulaay Abdul Qadir Jaylaani ay dara moo ma ko wax te bu yàggu rek la ma mujjee woo téléphone moo ma wax ne ma moo lépp awliyaa ulaahi yi bu ñu yéegee jëm ci seen borom ci mbëccum Cheikh Ibrahima Fall la ñuy lank sëriñ moo ma wax loolu te maa ngi fi ak cachet yi arrêté woon naa ko ak Lam Fall dem naa ba jululu fekk ko fa kon ñi yàlla may cër yooyu xam nañ dayo bi yàlla jox Cheikh Ibrahima Fall mu ni koo xam ne it wala yudanika fi hada al buur yàlla moo la ko may yaaram bi naam Fall may yii nga am yow Cheikh Ibra kenn du ci gam-gam la di ci jéem a dendoon ak yow yàllaa la ko jox yàllaa la ko jox waaye ku lay sikki sàkke na mos ta xool ba xam ki doon mu ne innal wufuuda jamian fii waaqifiina ataw di déglu tey say ndigal yaaram bi naam faal wala yuxaalifu amra man amarta fahum ñooy jaam yu dul daw du yokkat cheikh bi naam loolu mi mel ak melo yu yi ko suñu borom jagleel ak doxin yu yi mu am ak jëf yu yi ko suñu borom di jagleel loolu lay indi kon ba tey yaa di koo xam ne it gaa yu baax yi mboolem gaa yu tar yu dëgër yi ku ca mas a song jëm ci yow it yow Cheikh Ibrahima yaa dénd ñépp daan waaye kenn mësulaa jot caw melo xooloo min ataayika aw la aw damil ataw di daw di raam ba fi yow yaram bi naam faal Cheikh lu du même porte kii moo ko topp mooy koo xam ne ñi nga xam ne tey boo leen doon tudd da nga leen di tudd ci melo yu gën a rëy di leen tudd ci melo yu gën a mat yooyu nga koy fekk waaye awlaadu gërmi abidun ànda bayti gaddaa ñi nga xam ne ay gërmi la ñu woon it bu ñu ñëwee ay jaam la ñu nekk sa buntu yoo Cheikh Ibra Fall kon Cheikh Ibra ña gën a noobale doon boroomi cër seen i maam tey bari na ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi contexte Cheikh Ibra Fall ña daan raamal Cheikh Ibra ñooña ñoo yilifoon seen i maam bari na koo xam ne boo ko gisoon ñu andi maamam ba muy dee xeet xeeti loxoom buum yun ko yeete ne ko ña la yilifoon nag ñooñee sa maam yooyee ñoom ñoo daan raamal Cheikh Ibrahima Fall yaay koo xam ne it ku gis li nga am ci ay melo la muy def mooy jóg di la roy waaye du fas yéene jóge benn melo ay mbooloo yuy ñëw taxaw fi sa bunt inna lu fuuda jamian waaqifina ataw di déglu tey say ndigal yaaram bi naam faal ay mbooloo ay kuréel yu bari ñooy taxaw di déglu sa ndigal te kenn du jooyoon ndigal loo digle xoola wala yuxaalifu amran man amartafahum kenn koo xam ne Cheikh Ibrahima dina nga jiwee mu ndam mooy la sëñ Tuubaa waxoon ko rek ne Ibra Fall bu ma xëyoon bàyyi àndal duñ ko baax loolu nan nga ko mën a dégg ca mooy kon li muy wut da koo jënd ba mu jar mu am ko moom Cheikh Ibrahima Fall ci digganteem ak Serigne Touba moo tax Serigne Ibrahima Bousso moom mbir kilaan ba génn àdduna dem ba nga xam ne waxatut baat bi mujj a bind ci suuf da ne kuunu ka Cheikh Ibrahima Fall loolu la Serigne Ibrahima sa bind. mel leen nekk leen ni ki ni Cheikh Ibrahima Fall meloon nekk leen ni ki Cheikh Ibrahima Fall ci melo woowu ak doxin wu rëy woowu am na ku ñuy wax sëñ moor juuf Jatti sëñ Mor Diouf Jatti ci ñi jaayante woon Mbakke Kajoor ci la bokk 90 91 bokk na ci ñi sëñ Tuubaa jëkk gërëm wàcce leen ci bi sëñ Baara ganee jamono dafa am bis sëñ Tuubaa yónni sëñ Mor juuf Jatti sëñ moor Diouf génn dajeeg Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall na ko kaay ma yónni la moor Diouf jëtti sëñ Mor juuf dem doxi yónneelub Cheikh Ibrahima Fall ba ba noppi door a dem doxi yónnee sëñ Touba bi bi ñëwee sëñ bi na ko yow de moor yàgg nga mu ne ko Cheikh Ibrahima Fall ma yónni woon sëñ Touba ne ko baa dem nga dégg nga Cheikh Ibrahima Fall ma yónni woon mu ne ko baa dem nga mu ne ko waaw damaa dem ma ñëw door a dox mu ne ko Ibrahima Fall da noonu lay def. ndax lu ma duy mu bëgg ko këpp ndab lu ma duy nga xam ne kenn du dangaalu ci wetu Cheikh Ibrahima Fall moo tax mosoo dégg na mag mu ne la nee na ci keppaaru Sëñ Tuubaa contre Cheikh Ibrahima Fall doyee da Cheikh Ibrahima Fall yëpp Cheikh Ibrahima Fall ba léegi barke bi tasaaroo ci kër Sëñ Tuubaa di dox ci këram mosoo ko dégg koo mas a dégg ñu ne feeroo na ak Cheikh Ibrahima ne la xañ naa la ko ñàkk nga ko lum la mas a xañ loolu nit ñi ay gëstu lañ xam ne koo mas a dégg ñu ne la contexte na Cheikh Ibra Fall dal ci kawam mbir xew am na lu xewaat ca moom loolu cëram bu rëy la bu ko yàlla jagleel ñim gisul seeni ndab ah dana néew ci ndab yu mat yooyu ci digganteem ak Serigne Touba loo xam ne it wa anta ajwadu aqrar zamani maa déeful werante ci lii yaaram bi naam Fall mbooleem ñoñ jamono mbooleem xërnu yi siècle yi yaa ci gën a tabe yow Cheikh Ibrahima Fall maanaam tabe ba tabe jeex nag dañuy wax ne tabe ci sa bakkan ak sa daraja ci raw Cheikh Ibrahima Fall dafa tabe ci darajaam te ni mu meloon ci sëñ bi la mel ciy bokkam sëñ Mbàkke Buso mas naa ñëw njëriñ deen di addi yi sëñ Tuuba Cheikh Ibrahima Fall seen Cheikh Ibrahima Fall di indi addi yi gis sëñ Mbàkke Buso jël ko jox ko na ko am ndax yaay mbokkam xolo woowu jàngali ak melo yooyu muy jàngal moo tax defe naa marché boobu sëñ Moulay bu sa def ci moom bu bu ko gën a yéeme gën koo fees jafe na ca tàmbale ci xat bàyyi xa Cheikh boobu sëñ Moulay moo ko def di ca jàngale Cheikh Ibrahima Fall ak position bi mu amoon ak nim nose li tasaaroo woon ak lu waroon a yàqu lu ne ni ko defee te yàggees na ko woon wane wanee lu yoon Cheikh Ibrahima Fall yàggees na ko wax yonee lu yoon ndax mooy kii wane yoon ndax mooy babul muridin loolu sëñ bi def ko ko nangul waaye ahlul xawaayiji jaau laazimina bu ko fi yow ku del si day ree cheikh bi naam Fall loolu kon jikko yonente bi la mushkil li shakin bishrin li bakin bari waa na ko bu daan ñëw ci se buy ñëw ci Cheikh Ibra yitte da koy gën di wet gu ne bu ak see rongoñe day toq toqi ndax jaaxle ak fu muy fajoo nee buy génn ëttub Cheikh Ibra ba day ree faj goo ko Cheikh Ibra Fall faj loolu sëñ mu lay indi woon na ko ca wayam wa nee na ana kan mooy dimbalati jirim yi way ñàkk yi ku leen di taxawoot yi way néew doole yi ku leen di wettileeti ana kuy ñoddeeti nit ñi tàbbal ci yoon wi kuy tax xidma di wéy loolu la sëñ mu lay waxoon keroog bi Cheikh Ibra Fall fàddoo mu ne ana kuy waneete lu mel noonu yaay koo xam ne yow Cheikh Ibra Fall kon lakal wilaayatu bay na na zaahira sag wàlli yooyu jëkk a feeñ yaaram bi naam fall te kat loo gis ci moom wilaaya ge korom wilaaya Cheikh Ibra gaa yi xam nañ ko de ku masa wax baggal sa tànk nga dëgër bopp ni ko sëñ seex Ndigal doon waxee léegi bu nee law xët fuuf na la jak dukk dukk sànni ci bitti na doom ñàkk a xam bu del see guddi jot nga defaru ba jekk lal sab der neuf yi la yor sa péricouris di rotal ngir ne naa jéem a dem ca kaw dégraté Cheikh Ibra Fall asamaan soo jukka rom fa nga koy fekk mu laal la laal raw yi mu la laal yoon suuf boo del see xam ne mooy waañ boo leen dajee sa dox da ngay naan sëgg na cell yooyu la boole woon ak wilaayaama jiitu moo ku mas a dajal fi suuf kon ak wilaaya moom defe naa comme kenn mënta seen wilaaya gu toll ni wilaaya gi yàlla defal Cheikh Ibrahima Fall ndax lu lu làqu lu sori lees xamul nga xam fa mu nekk loolu tegtal la ci wilaaya gi ak rëy gi te trouvé na sëriñ bi la sëñ Tuubaa waxoon rek ne sama bu ma kenn doon xam sama jëkk Ibra Fall xam ma waye buma kenn non xam sama mujjit isa jenn xam kon ahlul balaghati wal ashari qatiba musuñu fe wax lu melni cheikh bin amfal fall hum yamdaxuuna faqat lakinnahum jahilun yes nañ lii ma wax ya rabbi naam fall kenn mësta wax lu toll ni lii ma la wax ñi tag réere nañ sax lu melni ba andi ko ci cheikh bin amfal waye xat fuqta harun fi juudin wa fi karamin sa mas gi tay yaa ci sut yaaram bi naam yaa raw aaruuna ci ak tab ak tedd nga sa maas gi yaa ci jiitu yow Cheikh Ibrahima Fall yaa ci raw sa maas gi yaa ci raw law yam ndaxa shuara kullul kiraami maa ma way le man yaa ma saf yaaram bi faal bu fekkoon ne waykat yépp dañoo jóg di way gaañu baax ña man ma jóg yow di la way yow Cheikh Ibrahima Fall lu tax ma di la way mooy yaay ki ma saf kon loolu la jàngale te noonu mu meloon ñi bokk ak Serigne Touba ñëpp noonu lañ meloon ci moom njabootu Serigne Touba yëpp noonu lañ meloon lu tàmbalee Cheikh Mamadou Moustapha al Karim bu la doon wax digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall Alaaji Fallu Mbakke doy na ca misaal koo xam ne dalay tudde ab sooroor yemu ca boo demee ci biir këram fekk fa Cheikh Ibrahima Fall doy na misaal te boo wëree ci biir kër sëñ Touba noonu lay mel kenn ku nekk Serigne Saliou mbakki mu baax mi nga xam ne foo mas a tudd Cheikh Ibrahima Fall ay xéewalam daanu cib dënnam ngir wormaal ko ak xam kim doon ak waggar ko ak cër bu rëy bi ko yàlla jagleel kenn ku nekk nangu ko loola it moo tax boo seetee biir mag ñi mbokkaloon sëñ Touba sëñ Ahmadou Fa Jamañang daana wax ne ku dul Cheikh Ibrahima Fall karayu bopp lañ nuroo kon ñëpp nangu tooñ nañ ko ak jiitoom ak cër ko yàlla jagleel may yàlla na te sañ-sañ la am ci boromam yàlla ko ko jagleel sëñ Tuubaa nangul ko mbiram bokk ci ñi xam nga bis bi def muy ngërëm li ko jëkk gërëm defe naa 1927 gaaw dimanche gaaw bi dimanche yi sëñ Tuubaa fatoo alterné ja ba nit ñi bisee euh, Touba gaaw boobee bokk ci ñi sëñ Tuubaa mujj a gërëmaat Cheikh Ibra Fall nga xam ne woolu ko ba mu ñëw ñetti baat la ko Ibra Fall gërëm naa la Ibra Fall gërëm naa la Ibra Fall gërëm naa la kon won ko melo gërëm ko ci doxee ñu nekk Cheikh Ibra Fall yaayoo kon nag loolu day wane ne doxin woowu ko yàlla jagleel may ko ko waxoon naa daal ne yàqu jàmboo ku ci sa biir daw da nga waane rek Cheikh Ibra Fall ku ne am na loo war a lijjanti sa kër xam nga dégg nga fi man mënuñoo mënumaa yóbbu nit àjjana liggéeyuwun kenn àjjana loolu lépp ku ne sañ na ko loolu moom ku neex nga wax aw ma dépasse sañ ko sama soxna dama cee tëlee mënu mënu lu ma ko dara daw la conseil nu ne waaye mën na ko waaye góor niw fi moom moo duti wax <laughs> kenn dul wax Cheikh Ibrahima Fall sëñ mu dem mu baax ma Cheikh Ibrahima daa ma sa yónnee ci am masala mu ngi koy laaj sëñ mu dem na ko ah bu ci diine Cheikh danaa ci waaye mbirum Cheikh Ibrahima mu ne ko ah mu dem jàmbaar la waaye ni sañ-sañ bi lañ xam sañ-sañ ba lañ xam lam ca teg ci ngay xamee ne sañ-sañ ba lañ ca koo xam ne yaa nga cay laaj misaal ba neex la nga ne xanaa bu ma ràmmoon nangam ca néeg ndeyam ràmmoon nangam ci néeg bàyyam loolu wane na sañ-sañ ba aw doxin lay jàngale kon fii jamono tollu léegi ku jóg na Cheikh Ibra ku jóg wax Cheikh Ibra nang te bari ci ñooñ Cheikh Ibra Cheikh Ibra ngi leen di dimbale te ñoom xam nañ ko dañ ko mënta ñemee wax ci kaw nag xam naa fii ñoo xam ne bokkuñu sax ci yoon wi te waxtu woo waxee ñu ne Cheikh man ñoo ma waxal seen bopp ne Cheikh Ibra Fall nee na nikk sama loxo yëkkati ma ci kaw te loolu loolu loolu loolu ki ko wax bukkul ci yoon wi te man dañuy bokkee jataay maa moom te mun bokkee jataay damay dégg muy wax Sidi Birahim waaye après <laughs> moom wax na ne gis na Cheikh Ibra téye loxoom nag ma ne ko ah, xam naa ne xaw ma yow noo ko mën a firee de ndax ginnaaw bokkul ci mu yëkkati sa loxo xam naa dalay lay rek na la feeg yaa ngi def nii di jëm ci kaw waaye kenn laa aw tekkin daal la laaj ginnaaw am nga daraja jooju nag am maqaama mu nar laa de del sax ci wax Cheikh Ibrahima Fall ak nii mu mel tabañ ko rus looloo tax fii jamono tollu léegi muy jamonoy critique jamonoy média jamonoy werante jamonoy xul jamonoy wax ku am li gën da koy wone yàlla xam na ne gis nga li yàlla Serigne Touba defal ko njabootu Cheikhul Khadim kenn mënta am lu mel noonu baa nga gis ko kenn mënu ko kon ndaw ñii di door a ñëw nouvelle génération bii bu nu dara fab ni ko sëñ Moustapha doon waxee léegi bu nu kenn dox suñu digganteeg liñ gëm ab murit day am pour la bu ñuy wax nga toog di déglu ay nopp déglu lay jariñ mais pour ñu convaincre la moo war a jafe kii wax bu waxee ba yeggal nga naan sa guuxu ko fa yëngal sa bopp na sëñ Tuubaa mu morom jaraw la ko Seex Rafal moo xam ne li ngay duggut loolu la murit di mel yor wenn melo yor jikkoy dóom koo laal mu weex lu la laal weex te waat naa ko ci yàlla ñi ni da gaa ñii ma gis li ñuy dagaase moom la ñuy encaissé ku leen gëm képp leen nit kay bu mënta mu béy rek wutub GIE wala association. wala nangam ngir ngeen ku ca bindoo wala sopp ay soppe ngir ñu daje di la musal dara bokku leen daayira boo xam ne dañuy sol bula blanc baa ñu sol noir jaune yaakaar Cheikh Bachirou Fall alxuraan ami daara di bàyyi di ko jox di liggéey bu leen di ñaanal muy dal li ñuy bëgg ñu di ko am loolu boo ko mënta am da ngay bëgg a ñëw ci biir rang gi bëgg koo dagg te kenn du la rang ku am lu wóor kenn wóoru la dëwyee barki dem mang ci wax ak nitu aduna mu ne lima ma jaaxal mooy ñu bes ñi ñew di fu wote da préfet la de mo na ñu bes ñi bëgg wote espace lañ amul manam espace fuñ samp li ñi wote lañ amul ndax fekk na ñun ñu gëm yi ni gëm ba nopi mënu ñu fexé ban bayyi ñin gëm mënu ñu ko fexé Cheikh ibrahim Fall même amna ñu ne ci yoonu comprendre wuñ ko ma sam genn ki fa may wax ak mom ci Cheikh ibrahim Fall mo na ma mbiram li ma jaaxale ma ne ko so mom dee ma gëna a jaaxal ma mo na ma man ma ne ko ah ma jaaxal mooy yow dema won ci geej gi mbàkki nga seen waaye dema won ci geej bindoo téere yi yow defaroo defaroon te ku la gis njimmi mbaxan sukkuraam ngay tuf li ñi ñuy raayoo te li ñuy wax xamoo lu ko gën di xam baax na am mu ne ma amoon nañ gànn ma ne ko moo li walaa lee nag li walaa bal lii moo walaa bal lee moom kay nan nangu lépp sëñ Tuubaa moom jàpp lépp baa ba lépp ah, mais lu mais da ngeen am am leen lu setantal diwu bu ne bu ne woon mbàkk yi ngi ñëw nii léegi ñëpp defaraat seenu toogin dàll yi naaw mbaxana yi naaw ku ne làmb sama suut loo ko jox te moom mii bi lu jub téere géej gi moom kenn ci kàmbaroon liggéey yi ñim si kenn ko defoon waaye yow sant gi nga sant moom mu sant ko nga sant ko képp gaa ñi li jëndiwun foo ko bokkee ak noo ko sant yow da en tout cas moom nga rek seen nañ la naaw boo santaay na nu def ku la tudd nu ray ko ku la wax dana nu xas ko ku la bañ nangam nangam loolu loolu loolu ko gën di xar baax amut ci àdduna moo tax léegi-léeg ma dégg sëriñ bu ne nañ bàyyi waxtaane xar baax loolu kay moom nañ bàyyi jëf xar baax ji ko nañ bàyyi dem tool yi xar baax la jur jox la nga yóbbu ca daara ji te ku mu waxal fi ne te doom joo yóbbu ci daara ji fi ne moo lay gënal ñu la yóbbu ci kër gi sama sëriñ laa ko jox sëñ bee ko diw sëñ bi lay liggéeyal sëñ bi nee na ma jàmbaar la fi ne kooku ngay yaakaar boo deewoon sax da ngay bëgg mujj ci yow ndax nekkam ne ci sëñ bi te loola yaakaar jooju du tas ndax suñ tubaa nee na du ma tas yaakaar yi du ma yaakaar loola tax ñu am complexe fi ne buñ toogee war a waxtaani sëñ tubaa nee na xoolal dañuy daje war a waxtaani Cheikh Ibrahima Fall naan nañ waxtaan ci économie léegi nag économie bi ñuy waxtaane li ci gën a garaaw dañuy woy oustaz boo xam ne dañ koy jëli ba noppee delloo benn moom amul wata bu mu ñëwee amul bu mu delloo kon jëndul gasoil kooku économie suyee gu ci dara moom léegi nay lay jàngale jàngalewul économie nay lay jàngale moom nay doo nga lay jàngale ndax danaan bàyyi leen yàq gi ku amagul lu muy yàq léegi li ñu war a jàngale mooy yi Ibra fal nan la mënoon a tëniire nan la mënoon a muñee nan laa moon njàmbaaru mën a dëgër taxaw ci biir kër Sëñ Tuubaa xuus ba bu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah na jërëjëfa sëñ Tuubaa na jaraw la ko Cheikh Ibra fal fan la Cheikh Ibra jaar ba lii am ñu jàngal nit ñi jom ak ngor ak fit ak dëgg loolu la ñu war a jàngal waaye ay pexe ki lijjanti bu ñu ma ko jàngalee ñun ñëpp dañuy def ne dóoree tax mu jàll moo tax ci biir yoon wi ngay gis xaftaan bu rafet mëxtu mu baax borom amutum xëy du lëggee dóoru rek ak lijjanti ñooñu nag saal buñ toog kan ca saal ba la mu bëgg la ñuy boo nee Cheikh Ibra Fall ñu naan gars yi dañ di daanu kat rek nag waaye defe naa Sëñ Tuubaa waxewu ko woon noonu fekk cent mille yi muy xaar ci waa ji ak dix mille francs yi muy xaar ci waa ji nit day lungoo liggéey ngir mën a sàmm diineem te yoon wi looloo ci bari amuñu lu ñuy def ñu ci bari amuñu lu ñuy def fasaale rek ëskey rek Sëñ Tuubaa mu moroom xéewali sëñ bi du jeex ci yoon wi ngay gis ku ngemee risque bu toll ni amul lu mu yilif ba noppi ne sëñ bi dama teral man sëñ bee ma teral buy nuyu sëtu Cheikh Ibra Fall xàmmeewu ko boppam cati baaraam lay joxe moo ne yëg gi mu ci yëg mooy sëñ bi ñëpp la fi nekkal ah ñëpp la fi nekkal du fi nekkal sëñ bi mais sëñ bi daa am lu mu sëñ bi pour pour ñëpp maanaam noonu sëñ bi la mais sëñ bi dafa am par parce que xabar nga ko xam ña jënd ba mu jar ñooñaa moom wa saabixuuna saabixuun ulayka al muxarrabuun wa man tadaaraka dañ koy dalal leen xel nga bëgg a bokk ca ran gu njëkk ga ci yoon wi ngay gis fit wu toll ni bu ma fekkee woon jamono Cheikh Ibra da ngay dégg ko wax bu ma fekkee woon jamono Cheikh Ibra te kenn xamul sa sëriñ mbooleem ku yab yoon wi yëbewu ci kër Cheikh Ibra ci service Baye ci dëggu Baye Fall ci nungoo liggéey Baye Fall ci njàmbaar Baye Fall ci sàmm Baye Fall ci fit Baye Fall ci ngor waaye nag hôpital boo dem am na mar nii ñuy sikkale naan murit nangam boo demee ci tijaan yi am na fu ñoo xam nañ mel bokkul ak sàkk tijaan xaadir yi am na ñu mel noonu nang hôpital boo dem am na margo booy dugg si ci hôpital bi nag yam ci kunte kib sérieux di puus jëmee ca margo bay denc nga ne hôpital bi ku fi dugg dee da ngaa daje war a dee waaye am na ku génn di ñibbi koo xam ne fi la duggoon di faju booy wër murit wala ngay wër Baay Faal ñëwal ci Baay Faal ki dugg siwul xool ko ci extérieur xoolal ñeneen xoolal toogin mii buñ laajee charia ñu tontu buñ laajee nangam ñu tontu ba noppi di boroomi jub di boroomi ngor bëgg sukk ak raam wane melo ñii ñoo jàngale nan la nit di mën a nekk ci àdduna pour dund àdduna jag président yeeg yëpp bu mënoon am lii am ko mooy fexe ba kenn du la contre loo santaane nu def loolu nag yàlla ci biir sëñ Tuubaa ak waa këram la ko def ruur mi ne ci biir nag mooy ñoo xam ne kenn xamul seen sëriñ man Baay Faal laa rek lay wax Baay Faal baat boobu dong la waxoon naa ko fi daaw Baye Fall it ku jóg bëgg koo doon sëñ Abdou Khoudous borom Daarul Muxti daa ku ma sa jëlee ay tubaab bitim réew ñëw na ko dañuy jébbalu ñii nag ay Baye Fall la Cheikh Abdou naa gën a gaaw doona góob jullit bay doon murit yegg ci Baye Fall ah gaaw ngeen ah, mais Baye Fall xool jullit murit Baye Fall da dafa nekk ci catégorie gi gën a jafe da ngay nekk mu'min muslim muhsin dooru tudd murit léegi nekk mu'min muslim muhsin murid door a doon Baay Faal ab jullit gëm yàlla jëfe sa diine di murid nga nekk point boobu door a ñëwaat nag doon ñeent yi ba noppi nag door a ñëw nekk Baay Faal moo tax Baay Faal moo gën a ca profondeur moo gën a jafe yegg man ngaa nekk jullit te doo doon murit man ngaa doon murit te doo doon Baay Faal Baay Faal nag boo ko doonee saanu jam lépp la mooy rassembler nga yépp yow yaay ki yàlla bëgg ku ni mel mooy Baay Faal kon lu ñu foyé ci mbett lén lu ci nit di war a xool bi yegg fo xamné nak dañuy tuuse ñep tuuse sëñ Touba tuuse Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan mourid gi na cell léegi lu way wax nangam nangam ben way daf ma wo ci États-Unis nama gan na de dégg naa ni ngay tonto mais dama bëggoon ngay soralé ma ko ñan lay soralé mu ne ma suñ bokk naag ma ko da nga ci am xarit mu waaw ma ne ko dama ciy xamul kenn man bay ci sóoraale xaw ma ci kenn te yow ñaar fukki at maa ngi wax teraanga ju ne defal nañ ma ko fi gis sa jot ñëw ci bu ma fi ma saa wax lu ñu may yeddeet mosoo cee bokk kon bisub tey bii doo ma wax lu ma dégg yow jàppal sa waay rek ba ma ci li ma ne barki dem moo waar ma ne ma gànna neexul ba neexul nag man damaa jàppoon ne yaay tooñ waaye nekk noonu la ñuy tooñ ma ne ko yow daal yaa toll foofu waaye man ba ma jógee li ma xam man romb naa da ngay téla comprendre né gis nga maam maarama jur mam diw mam diw mam jur mam diw taxul a jariñu señ touba bu don taxa a jariñ sëñ Tuuba maam Mor Jaara mo señ touba bokk soxna Jaara bokk señ Mor Selis mam Mor Jaara da sukuram jébbal bopam señ touba señ touba li ñi jariño ci mom moy ni Cheikh Ibra Fall def jëf liggéey moko may limam bu don ne ku bukkul ak sëñ Tuuba doo am li ngay wut kon kay señ touba kon fan lañ ci dox jëm fu ne waaye sànni fa sëñ Tuubaa aw xeer la ci àdduna bi yàgg nañ ci di wax ne di jël sax ay bayitam di ko changé gis naa fii ñu ne xaddil wiqaayatu sëñ diwa ko wax déedéet xanaa dañoo fàtte ne boo demee ci fatxul fattaax fii matxil miftaax la bayit woowu nekk beneen bi nekk ci futuuxul mukarram fii matxil mukarram waxi sëñ bi muy xaddi wiqaayatu rijli mujtabaa muy shawkati ma yudaha aqraba ak xaddi jaaltuhu turaba naxlihi yaa laytani laxidani bi fadlihi ci ñaari xasida yooyu la nekk fatul fatah fi matil miftah ak futuhul mukarram fi matil mukarram ba ca toppi sëñ Tuubaa doxalewul digganteem ak rasulullaay kenn digganteem ak yàlla ku du rasulullah wasilati abduhu almuxtaar sayidina huwa alladi man aba taqdimuhu xufidahu waxul ne kenn nit yaa may seere ne may xaadimu rasul ndax yàllaa ko njëkk a seere shahida lil baaxi bi anniya al xadim wa xidmati lil muntaqa bishrun yaduum madaliya al muxtaara asraaran taduum wa maliki jaalini lahu al xadim فرحا الاكرم تفريحا يدوم بان نقلوه بالقل سن توبا خمغا نيان نيوكا سيرال موي خادم الرسول نانا رقيب عتيد يشهد لي بسا رقيب وعتيد في كل يوم ان سيد عبد المجيد سن توبا ني وقت وو نيك ملائكه يي دي رقيب عتيد دا نان ديم فا يالا نكو احمد با موي خادم الرسول كون دوكو سيرال مي ديف اك نجابو تامي دينكو كو يالا بند يالا لاكو دينك leppam du ko xam rasul allah jumlatu mali wal midad wal qalam hadiyatun lil musaba bi ni'am jitu lahu al yawm ci biir kër sëñ Tuubaa ngay fekk mag muy neuf la téeméeri rakk sëñ Daaru Assane Ndiaye mii ñu tudd bis bii téeméeri rakk la sëñ Daaru daan neuf la sëñ Daaru Assane Ndiaye moo waxoon ci làmmiñam ne kenn ku ne am na ñaari malaaka sa mbagg mii di Munkir mii di mii di Raqib mii xaw ma malaaka mi bindu safaan mi bind aw yiiw xaw ma dana ma bind lum yiiwam déet waaye mi bindu safaan du ko bind ndax du ma ko def maanaam assuré naa ne malaaka mi bind bàkkaar du ma bindal te loolu melo la sëñ Omar Diop keroog bi ko sëñ Tuubaa bindee leetara ba mu koy jot lu nuyoo sëñ Daaru na ko ballig salaami ila jaarika alladi ismu fi'lu ismi jottali ma sama nuyoo bi nag sa dëkkandoo jooju ñu xam ne ni tur yu mel ni la jëf ji mel muy sëñ daaw maanaam asan ji rafet ji rafet noonu tur yu rafete ni la jëf ji rafet te mag ñi noonu la ñuy ràmmale sëriñ Tuubaa kon sëñ Tuubaa daal amul lu man manque amul lu mu jëggaani sëñ Tuubaa yam la yàlla may ay jagleem sëñ Modou Habib moom borom Daarul Muxti borom Daarul Baye sëñ Modou Habib daawul julli sëñ Tuubaa ko tere woon sëñ Habib moom borom Daarul Muxti am na bis mu ñëw ci jàkk ji di julli sëñ Tuubaa gestu daan na xanaa daa am ku bàyyi lañ ko santoon daal di gestu mu sëñ Modou Habib demal ca lañ la lu tax loolu te maam Thierno juróom-ñetti fukki at yi ñeenti weer la dund ñaari yoon la ma sa tiim may ndox fay na ko ku jëppul dund ko jàkkaam doomam ji di sëñ Modou Habib nag ba dëpp sëñ jël doomam jox ko soxna may mën a ba noppi digaloon ko luy mbirum sëñ Tuubaa ku ca bokkul da nga cay moo tax sëñ Tuubaa moom gis nga ceeb bi neex na te su koo lekk gëmoo ko ak murit moom kenn duma ko jàngal gurutu murit loolu la kenn ko a jéem a déglu sax mais médecin médecin médecin médecine ku jàng médecin médecin moo koy jàngale politique politicien moo koy jàngale waaye koo xam ne raw yi buum lañ la xame nga toog di wax naan booy opéré booy def nangam ko jox sa kollu mu rey la sëñ Tuubaa ku koy jàngale da nga koy bokk ca xam ko mbokk ku bëgg lo wax man nga ko wax ak bokka a fi lu rafet ngi manes na wax waxtaane mais sëñ Tuubaa mi dal ku ko bokkul mëno ko wax mëno ko wax kat nak lamu lamu lamu sax ka ko macce ko xam lamu lamu sax ka ko macce ko xam li nak bu dee nax bu dee nax baax na xam ne xawma yomal xiyam ne man waye aduna wuur na ma ne mom sëñ Tuubaa mu ci tass yaakaari kenn régler problème yi sëñ Tuubaa ko defee fi mom wa man rahma min al hët mi tamba ku ma bëgg a gott torox fii la koy réglé sëñ góor a njaay ngi nii kat kat la yoon te du bay demewoon Europe musle ndox yoroy sunguf jaayooyu reen taxaw na sëñ jumaa morom képp loolu nag moom adduna ji teel na ko réglé situation fii la teel a réglé amul fooy rek loo bëgg am manes naa romb loolu fii fii adduna bi fii la tàmbalee situation fii la tàmbalee réglé loolu loolu moom lañuy xool kon man maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant sëñ Mbacke noo ngi sant bu baax Fall di la gërëm di la ñaanal bu baax a baax in qaala dayfun salaamun inda baabi kada may yaa di saafoonte ak moom Cheikh bi naam Fall benn bi ci jëkk lan moo ne ci teral gan yonent bi lu mu jàngale akrimu dayfa ida ataakum man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir fal fa dayfa ku gëm yàlla gëm bis la dina teral ganam mu ne yow Cheikh Ibra sa yu gan ci sa buntu asalaamualeykum may yaa di saafanteeg moom waaye tataawalu kulluhum li nay ni baakada te kenn jutul ci yeel te kenn jutul ci yeel yaaram mi lampal mboolem gars yi yu xamtiku nañ ngir di la séentu ak bëgg laa jot yow Cheikh Ibra waaye agsi wuñ sa yeel yaa sut ñëpp yow Cheikh Ibra Fall gars yaa ngi toqamtiku ngir bëgg laa jot ak bëgg laa séentu mais ñi xam yàlla nag ñi xam yàlla laa waxal de ñoo moom lii de la Cheikh Ibrahima Fall daan wax bu neen ndigal ñi defee ndigal a tax waaye bu may wax ña fekk yëf yi laa wax de waxuma ñii de gaa yii na fii waxuma leen waxuma de mais yii may gis ci dëkk bi mbir ñuy wëndeelu nii bëgg gëm yàlla gi xam ne diine joo xam ne ci comportement lay tege amul koo defar te kenn xamul ko la defar nooy jiitee ñoom seen boroom xam-xam yee ko waxoon Euh, Abu Madiana al-Maghribi ak euh, Imamul Junaydi waxoon nañu loolu waxoon nañ ne sa waay boo bëggee yéeg ci garab gi te doo laal datt bi mënta sotti wutil wasila wasila moo mënta ñàkk ñoom Imaamu Shafii da leen a dajji seen téere yi boo xoolee am na fu ñu di taxdiru a taxdir li inkaaril awliya man damaa xamul dëgg du jàng xamul lu leen dal wata nag bët yi leer na waaye du gis ka ca biir koy gisal xol bu lëndëmee borom du xam te gaañi fa innaha la taamal absar walakinaha taamal quluba lati fi sudur kon mooy koo xam ne yow Cheikh Ibra yaay ki nga xam ne may yàlla yu rëy moo daje si yow yaa di koo xam ne moom la yàlla may ay dameel di ko raamal di ko sukkal maanaam nit ñoo xam ne ay nit yi maanaa la day soxna yu mu dëkkoo te kenn ku ci nekk yi borom cër yoo xam ne démb ca démb seen i maam dañ doon yilifi waaye wa kullu man xarraa maa xat unil te yakun di roy tax di xam ne du yow yaa bi dam faal ku gis li nga am xam na ne du la def moroom la muy yéem mooy roy am na ko sëñ ma masa wax ne ko ana loo bëgg ma defal la sëñ bi da ko wax ne ko ana loo bëgg ma defal la mu ne dënn ba yàgg mu ne xanaa mel ni Cheikh Ibrahima Fall sëñ Tuubaa ne war a mën ko gënaaw na ko fàddunoo de fàddunoo de fàddu na mooy fàddu mel ni Cheikh Ibrahima mënut am kenn mënut attan dimension bu tol noonu di ko dëkkoo ci Cheikh Ibrahima Fall moo tax ku ñuy wax Sharif Mulaay Abdul Xaadir Jaylaani ay dara moo ma waxoon lii may bëgg na ci te ñëwoon na fii ma introsé ko mu yor 10 millions mu teg ne ku mën a indi fu Xaadimu Rasul nekk ci alxuraan ma jox la ñu def ko ay jataay dem naa ba fekk ku dëkk bu ñuy wax jululu ngir topp ko ci gëstu yooyu mu ne ma xanaa xamu senegal coow li li muy bari bari xetu takk ndeeru Sëñ Tuubaa moo fi jaar xetu takk ndeer bi waaye takk ndeer bi sax jëru xetu takk ndeer bi rek moo fi jaar moo ëlli li ngay gis lépp daan na ma nag awliyaa ulaa yëpp moom Sëriif Moulaay Abdul Qadir Jaylaani ay dara moo ma ko wax te bu yëggu rek la mu mujj woo téléphone moo ma wax ne ma moo lépp awliyaa ulaahi yi bu ñu yéegee jëm ci seen borom ci mbiccum Cheikh Ibrahima Fall la ñuy lank sérif moom wax loolu te maa ngi fi ak cachet yi enregistré woon naa ko ak lam fal dem naa ba jululu fekk ko fa kon ñi yàlla may cër yooyu xam nañ dayoo bi yàlla jox Cheikh Ibrahima Fall mu di koo xam ne it wala yudanika fi hada al ata ahadun buur yàlla moo la ko may yaaram bi naam Fall may yii nga am yow Cheikh Ibra kenn du ci gam-gam la di ci jéem a dendandoo ak yow yàllaa la ko jox yàllaa la ko jox waaye ku lay sikki sàkk rek na mus ta xool ba xam ko doon mu ne innal wufuuda jamian waa waaqifiina ataw di déglu tey say ndigal yaaram bi naam faal wala yuqaarifu amra man amarta fahum ñooy jaam yu dul daw du yokkat cheikh bi naam loolu mi melo nag ak melo yu yi ko suñu borom di jagleel ak doxin yu yi mu am ak jëf yu rëy yi ko suñu borom di jagleel loolu lay indi kon ba tey yaa di koo xam ne it gaa ñu baax ñu mboolem gaa yu tar yu dëgër yi ku ca mas a song jëm ci yow it yow Cheikh Ibrahima yaa dénd ñépp daan waaye kenn mësulaa jot caw melo xooloo min aw laa u damil atew di daw di raam ba fi yow yaaram bi naam faal Cheikh lu du même porte kii moo ko topp mooy koo xam ne ñi nga xam ne tey boo leen doon tudd dañ leen di tuddu ci melo yu gëna reey di leen tuddu ci melo yu gëna mat yoy nga ko fekk waye awladu gërmi abidun anda bayti gaddaa ñi nga xamne ay gërmi lañu ñu bu ñu ñëwé ay jamm lañu nekk sa buntu yow Cheikh Ibra Fall kon Cheikh ibrahim ña gënal nobalé noobale doon boroomi cër seen imam tay bari na ño xamne ñi ngi ñi ngi contexte Cheikh ibrahim Fall ña daan ramal Cheikh ibrahim ñoña ñoo yilifon seen imam bari na ko xamne tay boko gisoon ñu andi mamam bamuy dé dee xeet xeeti loxoom buum yuñ ko yeewee ca nekkoon ña la yirifoon nag ñooñee sa maam yooyee ñoom ñoo daan raamal Cheikh Ibrahima Fall yaay koo xam ne it ku gis li nga am ci ay melo la muy def mooy jóg di la roy waaye du fas yéene jóge benn melo ay mbooloo yuy ñëw taxaw fi sa bunt innal wufuuda jamian waaqifiina ataw di déglu tey say ndigal yaaram bi naam Fall ay mbooloo ay kuréel yu bari ñooy taxaw di déglu sa ndigal te kenn du juuyoon ndigal digle xoola wala yu xaalifu amran man amarta fa um kenn koo xam ne Cheikh Ibra na la digal nga juyoo mu du mooy la sëñ Tuubaa waxoon ko rek ne Ibra Fall bu ma xëyoon bàyyi it ñi àndal duñ ko baax lool nan nga ko mën a dégg ci maanaam mooy kon li muy wut da koo jënd ba mu jar mu am ko moom Cheikh Ibrahima Fall ci digganteem ak Serigne Touba moo tax Serigne Ibrahima Bousso moom mbir kilaan ba muy génn àdduna dem ba nga xam ne waxatut baat bi mujj a bind ci suuf da ne kuunu ka Cheikh Ibrahima Fall loolu la sëñ Ibrahima Bousso bind mel leen nekk leen ni ki ni Cheikh Ibrahima Fall meloon nekk leen ni ki Cheikh Ibrahima Fall ci melawoowu ak doxinu rëy woowu am na ku ñuy wax sëñ Mor Diouf Jatti sëñ Mor Diouf Jatti ci ñi jaayante woon Mbakke Kajoor ci la bokk 90 91 bokk na ci ñi sëñ Tuubaa jëkk gërëm wàcce leen ci bi sëñ Baara ganee jamono dafa am bis sëñ Touba yónni sëñ Mor Diouf jëtti sëñ Mor Diouf génn dajeeg Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima na ko kaay ma yónni la Mor Diouf jëtti sëñ Mor Diouf dem doxi yónneenub Cheikh Ibrahima Fall ba ba noppi door a dem doxi yónneenub sëñ Touba bi bi mu ñëwee sëñ bi ne ko yow de moor yàgg nga mu ne ko Cheikh Ibrahima Fall ma yónni woon sëñ Touba ne ko baa dem nga dégg nga Cheikh Ibrahima ma yónni woon mu ne ko baa dem nga. mu ne ko waaw damaa dem mu ñëw door a dox mu ne ko Ibra Fall da noonu lay def ndab lu ma duy mu bëgg koo këpp ndab lu ma duy nga xam ne kenn du dangaalu ci wetu Cheikh Ibrahima Fall moo tax mosoo dégg menn mag mu ne la nee na ci keppaaru Sëñ Tuubaa contre Cheikh Ibrahima Fall doyee da Cheikh Ibrahima Fall yëpp Cheikh Ibrahima Fall ba léegi barke bi tasaaroo ci kër Sëñ Tuubaa di dox ci këram mosoo ko dégg koo ma sa dégg ñu ne feeroo nag Cheikh Ibrahima Fall lum ne la xañ naa la ko ñàkk nga ko lum la mas nit ñi ay gëstu lañ xam ne koo ma sa dégg ñu ne la contexte ne Cheikh Ibrahima Fall dal ci ko mbir xew amna lu xewat ci mom lolou ci reum rëy le bu ko yàlla jagleen ñim gisul seeni i ndab ah dana new ci ndab yu mat yoy ci digganteem mak Serigne Touba mu di ko xamne ne wa anta ajmadu aqran az-zaman maa def werante ci li yaaram bi nam Fall mbooleem ñun jamono mbooleem xërnu yi siècle yi ci gëna tabe yow Cheikh ibrahim Fall manam tabe ba tabe jeex nak dañuy wax ne tabe ci sa bakkan ak sa darajaa ci raw Cheikh Ibrahima Fall dafa tabe ci darajaam te ni mu meloon ci sëñ bi la mel ciy bokkam sëñ Mbàkke Buso mas naa ñëw njëriñ dend addi sëñ Tuuba Cheikh Ibrahima Fall seen Cheikh di indi addi gis sëñ Mbàkke Buso jël ko jox ko na ko am ndax yaay mbokkam xoola woowu jàngale ak melo yooyu muy jàng moo tax defe naa marché boobu sëñ Moulay bu sa def ci moom bu bu ko gën a yéeme gën koo fees jafe na ca tàmbale ci xat bàyyi xa Cheikh boobu sëñ Moulay moo ko def di ca jàngale Cheikh Ibrahima Fall ak position bi mu amoon ak nim nose li tasaaroo woon ak lu waroon a yàqu lu ne ni mu ko defare te yàggees na ko woon wonee wanee lu yoon Cheikh Ibrahima Fall yàggees na ko wax yone yoon ndax mooy kii wane yoon ndax mooy babul muridin loolu sëñ bi def ko ko nangu waaye ahlul xawaayij jaa'u laazimina bu ko fi yow ku del si day ree cheikh bi naam Fall loolu kon jikko yonent bi la mushkil li shakin bi li bakin bari waa na kooku bu daan ñëw ci se buy ñëw ci Cheikh Ibra da koy gën di wet gu boo bu ak see rongoño day toq-toqi ndax jaaxle ak su muy fajoo nee na buy génn ëttub Cheikh Ibra Fall ba day ree ndax faj goo ko Cheikh Ibra Fall di faj loolu li mu la indi woon na ko ca wayam wa nee na ana kan mooy dimbaliti jirim yi way ñàkk yi ku leen di taxawooti way néew doole yi ku leen di wettileeti ana kuy ñoddeeti nit ñi tàbbal ci yoon wi kuy tax xidma di wéy loolu la sëñ mu lay waxoon keroog bi Cheikh Ibra Fall faddoo mu ne ana kuy waneete lu mel noonu yaay koo xam ne yow Cheikh Ibra Fall kon lakal wilaayatu bay na na zaahira sag wàlli yooyu jëkk a feeñ yaaram bi naam fall te kat loo gis ci moom wilaaya gee korow wilaaya Cheikh Ibra Fall gaa yi xam nañ ko de ku mas a sa tànk nga dëgër bopp ni ko sëñ Cheikh Ndigal doon waxee léegi bu nee law xët fuuf na la jakk dukk dukk sànni ci mbitti na doom ñàkk a xam bu del see guddi jot nga defaru ba jekk lal sab der neuf yi la yor sa péricouris di rotal ngir ne naa jéem a dem ca kaw dégraté Cheikh Ibra Fall asamaan soo jukka rom fa nga koy fekk mu laal la laal yu raw yi la laal yoon suuf boo dil see xam ne mooy waaj boo leen dajee sa dox da naan sëgg na cell yooyu la boole woon moo leen ku a dajal fi suuf kon ak wilaaya moom defe naa comme kenn mënta seen wilaaya gu toll ni wilaaya gi yàlla defal Cheikh Ibrahima Fall ndax lu lu làqu lu sori lees xamul nga xam fa mu nekk loolu tegtal la ci eh, wilaaya gi ak rëy gi te trouvé na sëriñ bi la sëñ Tuubaa waxoon rek ne sama bu ma kenn doon xam sama jëkk Ibra Fall xam ma waaye bu ma kenn doon xam sama mujjit Isaa Jenn xam na kon ahlul balaagati wal ashari qaatiba mosuñu fee wax lu mel ni Cheikh bi naam Fall hum yamdaxuuna faqat lakinnahum jahiluun yées nañ lii ma wax yaaram bi naam Fall kenn mësta wax lu toll ni lii ma la wax ñiy tagg réere sax lu mel nii ba andi ko ci Cheikh bi Fall waaye xat fuqta haaruuna fii juudin wa fii karamin sa maas gi tey yaa ci sut yaaram bi naam Fall yaa raw aaruuna ci ak tab ak tedd nga sa masque yaa ci jiitu yow Cheikh Ibrahima Fall yaa ci raw sa masque yaa ci raw law yam daxa shuara kullul kiraami maa ma way le man yaa ma saf yaaram bi nam Fall bu fekkoon ne waykat yépp dañoo jóg di way gaañu baax ña man ma jóg yow di la way yow Cheikh Ibrahima Fall lu tax ma di la way mooy yaay ki ma saf kon loolu la jàngale te noonu mu meloon ñi bokk ak Serigne Touba ñëpp noonu lañ meloon ci moom njabootu Serigne Touba gépp noonu lañ meloon lu tàmbalee Cheikh Mamadou Moustapha al Karim buñ la doon wax digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall Alaaji Fallu Mbakke doy na ca misaal koo xam ne danay tuddee ab sooroor yemu ca boo demee ci biir këram fekk fa Cheikh Ibrahima Fall doy na misaal te boo wëree ci biir kër Sëñ Touba noonu lay mel. kenn ku nekk Serigne Saliou Mbacké mu baax mi nga xam ne foo ma sa tudd Cheikh Ibrahima Fall ay xéewalam daanu cib dënnam ngir warmaal ko ak xam kim doon ak waggar ak cër bu rëy bi ko yàlla jagleel kenn ku nekk nangu ko loola it moo tax boo seetee biir mag ñi mbokkaloon sëñ Touba sëñ Ahmadou Fa Jamañang daana wax ne ku dul Cheikh Ibrahima Fall kare yu bopp lañ nuroo kon ñëpp nangulooñ nañ ko ak jiitoom ak cër bi ko yàlla jagleel mayu yàlla nag te sañ-sañ la am ci boromam yàlla ko ko jagleel sëñ Tuubaa nangul ko mbiram bokk na ci ñi xam nga bis bii ñuy def muy ngërëm li ko njëkk gërëm defe naa 1927 gaaw dimanche gaaw bi dimanche yi sëñ Tuubaa fatoo alterné ja ba nit ñi bisee euh, Touba gaaw boobee bokk na ci ñi sëñ Tuubaa mujj a gërëmaat Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne woolu na ko ba mu ñëw ñetti baat la ko Ibrahima gërëm naa la Ibrahima Fall gërëm naa la Ibrahima gërëm naa la kon won ko gërëm ko ci doxo ñu nekk Cheikh Ibra Fall yaayoo kon nag loolu day wane ne doxin woowu ko yàlla jagleel may ko ko waxoon naa daal ne yàqub jàmbur ku ci sa biir daw da nga waane rek Cheikh Ibra Fall ku ne am na loo war a lijjanti sa kër xam nga dégg nga fi man mënuñoo mënumaa yóbbu nit àjjana diggee wuñ kenn àjjana loolu lépp ku ne sañ na ko loolu moom ku mu neex ko wax aw ma dépasse sañ na ko sama soxna dama cee tëlee mënu mënu lu ma ko dara yow la concerné lu ne waay mën na ko waaye góor niwu fi moom moo duti wax loolu la kenn du wax Cheikh Ibrahima Fall sëñ mu dem mu baax ma seex Ibrahima daa ma sa yónnee jëm am masala mu koy laaj sëñ mu dem na ko ah bu toon ci diine Cheikh Ibrahima dem danaa ci waaye mbirum Cheikh Ibrahima mu ne ko ah xoolal ni nga xamee Cheikh sañ-sañ bi lañ xam sañ-sañ ba lañ xam lam ca tek ci nga xamé ne sañ-sañ bari ca ko xamné ya nga cay laaj misal bam neex la nga ne xanaa bu ma mo nangam ci néeg ndayam rammu nangam ci néeg baye lolo woné na sañ-sañ la aw doxin lay jang kon fi jamono tollu rek ku jog na Cheikh Ibra ku jog wax Cheikh Ibra nangam ta bari na ci ñoon Cheikh ibrahim Cheikh ibrahim gi leen di dimbalé ta ñom xam ko dañ ko mënta ñemee wax ci kaw nag xamna fi ñoo xam ne sax ci yoon wi te waxtu woo waxee ñu ne Cheikh Ibra man ñoo ma waxal seen bopp ne Cheikh Ibra Fall nee na nikk sama loxo yëkkati ma ci kaw te loolu loolu loolu loolu ki ko wax bukkul ci yoon wi te man dañuy bokkee jataay maa moom te mun bokkee jataay damay dégg mu yow Sidi Birahim waaye après <laughs> moom wax na ne gis na Cheikh Ibra téye loxoom nag ma ne ko ah xam naa ne xaw ma yow noo ko mën a firéene ndax ginnaaw bokku ci mu yëkkati sa loxo xam naa da lay junj rek na la feeñ yaa def nii di jëm ci kaw waaye kenn laa aw tekkin daal la laaj ginnaaw am nga daraja jooju nag am maqaama mu nar laa dimbale del sax ci wax Cheikh Ibrahima Fall ak nii mu mel te bañ ko rus sans complexe looloo tax fii jamono tollu léegi muy jamonoy critiquer jamonoy média jamonoy werante jamonoy xul jamonoy wax ku am li gën da koy wone yàlla xam na ne gis nga li yàlla defal Serigne Touba defal ko njabootu si Cheikhul Khadim kenn mënta am lu mel noonu baa nga gis ko kenn mënu ko am kon ndaw ñii di door a ñëw nouvelle génération bii bu nu dara fab ni ko sëñ Moustapha doon waxee léegi bu nu kenn dox suñu digganteeg liñ gëm ab murit day am la bu ñuy wax nga toog di déglu ay nopp déglu lay jariñ mais pour ñu convaincre la moo war a jafe kiy wax bu waxee ba yeggal nga naan sa guuxu ko fa yëngal sa bopp na sëñ Tuubaa mu morom yaraw la ko Seex Rafal moo xam ne léegi ko dugg loolu la murit di mel yor wenn melo yor jikkoy dóom koo laal mu weex lu la laal weex te waat naa ko ci yàlla ñi ni da gaa ñii ma gis li ñuy dagaase moom la ñuy encaissé ku leen gëm képp la nit kay bu mënta mu doyle wutub GIE wala association <laughs> wala nanga ngir ngeen ku ca bindoo wala sopp ay soppe ngir ñu daje di la musal dara bokkul ak daayira boo xam ne dañuy sol bula blanc baa ñu sol noir zone yaakaar Cheikh Bachirou Fall alquran ami daara di bay di ko jox di liggéey bu leen di ñaanal muy dal li ñuy bëgg ñu di ko am loolu boo ko mënta am da bëgg a ñëw ci biir ran gi bëgg koo dagg te kenn du la rang ku am lu wóor kenn wóoru la dëwyee barki dem mang ci wax nitu aduna mu ne lima ma jaaxal mooy ñu bes ñi ñew di fu wote da ab la de mo na ma ñu bes ñi bëgg wote espace lañ amul manam espace fuñ samp li ñi wote lañ amul ndax fekk na ñun ñu gëm yi ni gëm ba nopi mënu ñu fexé ban bayyi ñeen gëm mënu ñu ko fexé Cheikh Ibrahima Fall même amna ñu ne ci yoonu comprendre wuñ ko mas naa am genn ki fa may wax ak moom ci Cheikh ibrahim Fall mo na ma mbiram li ma jaaxale ma ne ko so mom dee ma gëna a jaaxal ma mo na ma man ma ne ko ah li ma jaaxal mooy yow dema woon ci geej gi mbàkke nga sant waaye dema woon ci geej gi bindoo téere yi yow defaroo defaroon te ku la gis njimbi mbaxan sukkuraam ngay tuf li nit ñi ñuy raayoo te li ñuy wax xamoo lu ko gën di xar baax daa am mu ne ma amoon nañ gànn ma ne ko moo walaa bal lee nag li walaa bal lii moo walaa bal lee moom kay nan nungul lépp sëñ Tuubaa moom jàpp lépp baa ba lépp rek ah mais lu mais da ngeen am am leen lu setantal diw bu ne bu ne woon mbàkk yi ngi ñëw nii léegi ñëpp defaraat seenu toogin dàll yi naaw mbaxana yi naaw ku ne làmb sama suut loo ko jox te moom mii bi lu téere geej gi mom kenn ci kàmbaroon liggey ñim ci kenn ko defoon waye yow sant gi nga sant mom mu sant ko nga sant ko kep gaa ñi lijjantiwun foo foko bokke ak noko sant yow da en tout cas mom nga rek seen nañ la naaw sant ay nañu def ku la tudd nu ray ko ku la wax dara nu xass ko ku la bañ nangam nangam lolu lolu loko gën di xar baax amul seet moo tax léegi ma deg serigne bu ne nañ bayyi waxtane xar baax loolu kay mom nañ bayyi jëf xar baax ji ko dañ bàyyi dem tole yi ya. xar baax la jur jox la nga yóbbu ca daara ja te ku mu waxal fi ne sa doom joo yóbbu ci daara ji fi moo lay gënal ñu ne yóbbu ci kër gi sama sëriñ laa ko jox sëñ bee ko diw sëñ bi lay liggéeyal sëñ bi nee na ma jàmbaar la fi ne kooku ngay yaakaar boo deewoon sax da ngay bëgg mujj ci yow ndax nekkam ne ci sëñ te loola yaakaar jooju du tas ndax suñ tubaa nee na du complexe fi ne buñ toogee war a waxtaane sëñ tubaa nee na xoolal dañuy daje war a waxtaane Cheikh Ibrahima Fall naan nañ waxtaan ci économie léegi nag économie bi ñuy waxtaane li ci gën a garaaw dañuy woy ustaas boo xam ne dañ koy jëli bu noppee delloo benn moom amul wata bu mu ñëwee amul bu mu delloo kon jëndul gasoil kooku économie suyee gu ci dara moom léegi nay lay jàngale jàngale économie nay lay jàngale moom nay doo nga lay jàngale ndax danaan bàyyi leen yàq gi ku amagul luy yàq léegi li ñu war a jàngale mooy Cheikh Ibra Fall nan la mënoon a tenir nan la mënoon a muñee nan laa moon njàmbaaru mën a dëgër taxaw ci biir kër sëñ Tuubaa xuus ba bu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah na jërëjëf sëñ Tuubaa na jaraw la ko Cheikh Ibra Fall fan la Cheikh Ibra jaar ba li am ñu jàngal nit ñi jom ak ngor ak fit ak dëggu loolu lañ ñu war a jàngal waaye ay pexe ki lijjanti bu ma ko jàngalee ñun ñëpp dañu defe ne dóoree tax mu jàll moo tax ci biir yoon wi ngay gis xaftaan bu rafet maxtu mu baax borom amutum xëy du lëggee dóor rek ak ñooñu nag saal mu toog kan ne ca saal ba la mu bëgg la ñuy wax boo ne Cheikh Ibra Fall ñu gaa gars yi dañ di daanu kat rek nag waaye defe naa sëñ Tuubaa waxewu ko woon noonu fekk cent mille yi muy xaar ci waa ji ak dix mille francs yi muy xaar ci waa ji tam nit day nangoo liggéey ngir mën a sàmm diineem te yoon wi looloo ci bari amuñu lu def ñu ci bari amuñu lu def fasaale rek ëskey rek sëñ Tuubaa mu moroom xéewali sëñ bi du jeex ci yoon wi ngay gis ku ngemee risque bu toll ni amul num yilif ba noppi ne sëñ bi dama teral man sëñ bee ma teral buy nuyu sëtub Cheikh Ibrahima Fall xàmmeewu ko boppam cati baaraam lay joxe moo ne yëg gim ci yëg boppam mooy sëñ bi ñëpp la fi nekkal ah ñëpp la fi nekkal du fi nekkal sëñ bi mais sëñ bi daa am sëñ bi pour pour ñëpp maanaam noonu pour sëñ bi lañ mais sëñ bi dafa am par parce que war boobu ko xam ña jënd ba mu jar ñoña mom ba saabixuuna sabiqun ulayka al muxarrabuun ma mënta daaraka dañ koy dalale xel nga bëgg a ci ram bu jëk ga ci yoon wi ngay gis fit wu toll ni moo fekkee woon jamono Cheikh Ibra da ngay dégg wax mo fekke won jamono Cheikh Ibra te kenn xamu su seri mbolem ku yab yoon wi yëbewu ko ci kër Cheikh Ibra Fall bay Fall ci service bay Fall ci dëggu bay Fall ci nungo liggéey Baay fal ci njàmbaar Baay Faal ci sàmm Baay Faal ci fit Baay Faal ci ngor waaye nag hôpital boo demee am na mal nii ñuy sikkale naan murit nangam boo demee ci tiijaan yi am na fu ñoo xam ne nañ mel bokkul ak sàrt tiijaan xaadir yi am na ñu mel noonu nang hôpital boo dem am na margo booy dugg si ci hôpital bi nag yem ci kunte kib sérieux di puus jëmee ca margo bay denc nga ne bi ku fi dugg dee da daje ko war a dee waaye am na ku génn di ñibbi ne fi la di faju booy wër murit wala ngay ci Baay ki dugg si fii léegi di seex Ndigal Fall xool ko ci extérieur a ñeneen xoolal toogin wi tey di seeti Cheikh Ibrahima Fall bu ne woon kaamil bi réer na léegi bala ñu ñibbi ci guddi laajee charia ñu tontu bu ñu laajee nangam ñu tontu ba noppi di boroomi jur di boroomi ngor bëgg sukk ak raam ñii ñoo a nekk ci àdduna bu dul àdduna jag président yeeg am lii am ko mooy fexe ba kenn du la contre loo santaane nu def loolu nag yàlla ci biir seen jub waa këram la kon ruur mi ni ci biir nag mooy ñoo xam ne kenn xamul seen sëriñ man bay Fall laa rek lay wax bay Fall baat bobu dong la waxoon naa ko man bay Fall laa rek men xam ku mbok bay Baye Fall ku jog bokko don doon sëñ Abdou Khoudous su borom darul maxti da am sa jele ay tuba bitim rew ñew nako dañuy jebulu ñi nak ay bay Fall la Cheikh Abdou nak gëna gaaw doona gop julit bay doon mourid yegg ci bay Fall daaw ngeen ah mais bay Fall bay Fall xol julit mourid bay Fall da ngay Baye Fall dafa nek ci catégorie gi gëna jafé da ngay nekk mu'min muslim muhsin door a tudd murid léegi nekk mu'min muslim muhsin murid door a doon Baay Faal ab jullit gëm yàlla jëfe sa diine di murid nga nekk point boobu door a ñëwaat nag doon ñeent yi ba noppi nag door a ñëw nekk Baay Faal moo tax Baay Faal moo gën ci profondeur ba moo gën a jafee yegg man ngaa nekk jullit te doo doon murit man ngaa doon murit te doo doon Baay Faal Baay Faal nag boo ko doonee saan wu jëm lépp la mooy rassembler nga yépp yow yaay kii yàlla bëgg ku ni mel mooy Baay Faal kon lu ñuy fooyee ci mbedd lenn lu la ci nit di war a xool adduna bi yegg foo xam ne nag dañuy tuuse ñëpp tuuse sëñ Touba tuuse Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan murit gi ne cell léegi lu waay wax nangam nangam ben way daf ma woo ci etats unis nama ganna de deg na ni ngay tonto mais dama bëggoon ngay soralé manako ñan lay soralé mune ma sun bok nak manako da nga ci am xarit mune waaw manako dama ci xamu kenn ma bay ci soralé xawma ci kenn te yow ñaar fukki at maa ngi wax teranga ju ne defal nañ mako musuma gis sa jot ñew ci bu mo fi sa wax lu may yedd musu ci bok kon bisub tay bi do ma wax luma deg yow jappal sa way rek ba ma ci li nek barki dem moo waat ma ne ma gànna neexul ba neexul nak man dama jappone yaay togn waaye nag noonu lañuy togn man ko yow daal ya toll man ba joge la xam lima xam man romb naa foofu sëñ Touba da ngay téla comprendre ne gis nga maam maarama jur mam diw mam diw maam jur mam diw taxul a jariñu seigne Touba bu don taxa jariñ Touba mam Mor Jaara mok seigne Touba bok soxna Jaara bok seigne Mor Selis mam Mor Jaara da sukuram bopam seigne Touba sëñ Tuubaa li ñuy jariñoo ci moom mooy nii Cheikh Ibra Fall def jëf liggéey moo ko may li mam bu doon ne ku bukkul ak sëñ Tuubaa doo am li ngay wut kon kay sëñ Tuubaa kon fan lañ ciy dox jëm fu ne waay sànni fa sëñ Tuubaa aw xeer lañ ci àdduna yàgg nañ ci di wax ne di jël sax ay bayitam ñu ko changé gis naa fii ñu ne xaddil wiqaayatu sëñ diwa ko wax déedéet xanaa dañoo fàtte ne boo demee ci fatxul فتاح في مدح المفتاح لبير وونك بنن منك تي فتوح المكرم في مدح المكرم واخي سيغ بي مي قد الوقايه رجل مجتبى من شوكه ما يضاها اقرب اقد جعلته ترابا نعله يا ليتني لحظني بفضله سي نياري قصيده يوي لا نك فتل فتاح في مدح المفتاح اك فتوح المكرم في مدح المكرم با تي توبي سيغ توبا دوخالي ول ديغنتي مك رسول الله كان ديغنتي مك يالا كود رسول الله وسيلتي عبده المختار سيدنا هو الذي من ابى تقديمه قفضا وقل لك كان يا ماي سير انا ماي خادم الرسول لا يلا كو جك سير شهيد للباقي باني القديم وقدمتي للمنتقى بشر يدوم مدلي المختار اسرارا تدوم ومالكي جعلني له القديم farraxani l akramu tafrixan yadohum bi annani xilluhu ibnu xalil sëñ Tuubaa xam nga ñan ñoo koy seeral ne mooy xaadimu rasul nee na raqiba atid yashadu li bisa raqibun wa atid fi kulli yawmin inna sil arsil majid sëñ Tuubaa ne waxtu wu nekk malaaka yi di raqiba atid dana dem fa yàlla na ko ahmadou bamba mooy xaadimu rasul kon du ko seeral mi def ak njaboo tamit dénk ko yàlla bind yàlla la ko dénk léppam du ko xëpp rasulaay jumlatu maali wal midaad wal xalam hadiyatu lil mustafa bi niam juttu lahu l yawma bi ruuxi wal badan wa waladi walidaya fi l alad ci biir kër sëñ Tuubaa ngay fekk man muy naafila téeméeri rakk sëñ Daaru Asan mii ñu tudd bis bii téeméeri rakk la sëñ Daaru daan naafila sëñ Daaru Asan Njaay moo waxoon ci làmmiñam ne kenn ku ne am na ñaari malaaka sa mag mii di munkir mii di mii mii di atid sëñ Daaru nee na xaw ma malaaka mi bindub safaan mi bind aw yiiw xaw ma dana ma bind lu yiiwam déet waaye mi bindub safaan du ko bind ndax du ma ko def maanaam assuré naa ne malaaka mi bind bàkkaar ma te loolu melo la sëñ Omar Diop bi ko sëñ tubaab bindee leetar ba mu koy jot loog nuyoo sëñ Daaru na ko ballig salaami ila jaarika alladi ismu fi'lu ismi yi jottali ma sama nuyoo bi nag sa dëkkandoo jooju nga xam ne ni tur yu mel ni la jëf ji mel muy sëñ daaw maanaam asan ji rafet ji rafet noonu tur rafet rafete ni la jëf ji rafet te mag ñi noonu la ñuy ràmmale sëriñ Tuuba kon sëñ tubaa daal amul lu manque amul lu mu jëggaani sëñ Tuuba la yàlla may ay jagleem sëñ Modou Habib mom borom Daaru Muxti borom Daaru yu bàyyi bàyyi Modou Habib daw julli sëñ Tuubaa ko tere woon sëñ Habib sëñ Modou Habib mom borom Daaru Muxti amna bis mu ñew jakk ji di julli sëñ Tuubaa gestu dal na xana da am ku bàyyi lañ ko santoon dal di gestu mu sëñ Modou Habib mu ne ko demal ci lañ la tanal lu tax lool te maam Cerno juróom ñetti fukki at yu manqué la dund ñaar yu la ma sa tim ma may ndox fay na ko ku jëppal du ko jakkam domam ji di sëñ Modou Habib nak ba noppi sëñ Tuubaa jël domam jox ko soxna may mën a kubra ba noppi digaloon ko luy mbirum sëñ Tuubaa ku ca bokkul da nga cay man moo tax moom gis nga ceeb bi neex na te koo lekk gëmoo ko ak murit moom kenn du ko jàngal ku dutu murit loolu la kenn war a jéem a sax mais médecin médecin médecin médecine ku jàng médecin médecin moo koy jàngale politique politicien moo koy jàngale waaye koo xam ne raw yi buum lañ la xamee nga toog di wax naan booy opéré booy def nangam ko jox sa kollu mu ray la sëñ Tuubaa ku koy jàngale da koy dund bokk ca xam ko bokki ku bëgg lo wax man nga ko wax ak bokk nga fi lu mi ngi manes na ko lamu mais sëñ Tuubaa mi dal ku ko bokkul mëno ko wax mëno ko wax kat nak lamu lamu lamu sax ta ko macce ko xam lamu lamu sax ta ko macce ko xam li nak bu nax bu na xam ne xuma yomal xiyam ne mom man waye aduna wuur na ma ne mom sëñ Tuubaa moom ci tass yaakaari kenn régler problème yi koy fi mom Waman rama minal baraya hët hët mi tamba kuma ma bëgg a gott torox fii la koy réglé sëñ góor a ngi ni kat kat la yow te du bay demoo woon Europe musle moom ndox yoroy sunguf jaayooyu reen taxaw na sëñ Tuubaa morom képp loolu nag moom adduna ji teel na ko réglé situation fi la teel a amu amul fooy rek loo bëgg am ma des naa romb lool fii fii adduna bi fii la tàmbalee situation fi la tàmbalee réglé loolu loolu moom la xool kon man maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant sëñ Mbàkke noo ngi sant bu baax Fall di la gërëm di la ñaanal bu baax a baax yàlla suñu borom yàggal leen te dëgëral bu baax baax am nañ mbégte ci jataay bi lool waxtu wu leen maa ngi koy wax seen Xaadim di ko wax it Cheikh Ibrahima Fall moom in qaala dayfun salaamun inda baabi gada man di saafoonte ak moom Cheikh bi naam Fall benn bi ci jëkk lan moo ne ci teral gan yonent bi lu mu jàngale akrimu dayfa ida ataakum man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir fal yukrim dayfa ku gëm yàlla gëm bis la dina teral ganam mu ne yow Cheikh saa yu gan nee ci sa buntu asalaamu aleykum man yaa di saafoonte ak waaye tataawalu kulluhum li nay ni baa kada te kenn jutul ci yeel te kenn jutul ci yeel yaaram bi nampal moo leen gaa yi yu xamtiku nañ ngir di la séentu ak bëgg laa jot yow Cheikh Ibra waaye ak si wuñ sa yeel yaa sut ñëpp yow Cheikh Ibra Fall gars yaa ngi toqamtiku ngir bëgg laa jot ak bëgg laa séentu nañ xàmmee ñi xam yàlla nag ñi xam yàlla laa waxal de ñoo moom lii de la Cheikh Ibra Fall daan wax bu neen ndigal ñi di defee a tax waaye bu may wax ña fekk yëf yi laa wax waxuma ñii de gars yi ne fii leen waxuma leen de yii may gis ci dëkk bi mbir ñuy wëndeelu nii bëgg a gëm yàlla gi xam ne diine joo xam ne ci comportement lay tege amul koo defar te kenn xamul ko la defar nooy jiite ñoom seen boroom xam-xam yee ko waxoon euh, abu madiana al maghribi ak imaamul junaydi waxoon nañu loolu waxoon nañ ne sa waay boo bëggee yéeg ci garab gi te doo laal dàtt bi mënta sotti wutil wasiila wasiila moo mënta ñàkk ñoom imaamu Shafii da a daj seen téere yi boo xoolee am na fu ñu du taxdiru a taxdir li inkaaril awliya man damaa xamul duñ ko du jàng xamul lu leen dal wata nag bët yi leer na waaye du gis ka ca biir koy gisal xol bu lëndëmee borom du xam te gaañi fa innaha la taamal absar walakinaha taamal xuluba lati fi sudur kon mooy koo xam ne yow Cheikh Ibra yaay ki nga xam ne may yàlla yu rëy moo daje ci yow yaa di koo xam ne it moom la yàlla may ay dameel di ko raamal di ko sukkal maanaam nit ñoo xam ne ay nit yi maanaa la day soxna yu mu dëkkoo te kenn ku ci nekk yi borom cir yoo xam ne démb ca démb seeni maam lañ doon yilifi waaye wa kullu man xarraa maa qad unil te yakun di royta di xam ne du yow yaa bi naam faat ku gis li nga am xam na ne du la def moroom la muy yéem mooy roy am na ko sëñ Tuubaa masa wax ne ko ana loo bëgg ma defal la sëñ bi da ko wax ne ko ana loo bëgg ma defal la mu ne dënn ba yàgg mu ne ko xanaa mel ni Cheikh Ibrahima Fall sëñ Tuubaa ne war ak mën ko gënaaw a ko faddu noo de faddu noo de faddu na mooy faddu mel ni Cheikh Ibrahima mënut am kenn mënut attan dimension bu tol noonu di ko dëkkoo ci Cheikh Ibrahima Fall moo tax ku ñuy wax Sëriif عبد الخادر جيلاني اي دارا ماما واخول لي مي بغا نك تا نيوون نا فيما انتروسكو مو يور 10 مليون مو تك ني كو مانا اندي فو خادم الرسول نك في القران ما جوخ لو ني داف كاي جتاي دم نا با فك كو دكم بو نيوخ جولولو غير توب كو سي گيس يوي مو نيما خنا خمو سنغال coow li li muy bari bari xetu takk ndeeru sëñ Tuubaa moo fi jaar xetu takk ndeer bi waaye takk bi sax jëru takk bi rek moo fi jaar moo andi li ngay gis lépp daan na ma nag awliyaa ulaa yëpp moom sëriñ Moulaay Abdul Qadir Jaylaani ay dara moo ma ko wax te bu yàggu rek la mu mujj woo téléphone moo ma wax ne ma moo leen awliyaa ulaa yi bu ñu yéegee jëm ci seen borom ci mbijjum Cheikh Ibrahima fan la ñuy lank sëriñ moo ma wax loolu te maa ngi fi ak cachet yi arrêté woon naa ko ak lamp fa dem naa ba jullu lu ko fa kon ñi yàlla may cër yooyu xam nañ dayoo bi yàlla jox Cheikh Ibrahima Fall mu di koo xam ne it wala yudanika fi hada al buur yàlla moo la ko may yaaram bi naam Fall may yii nga am yow Cheikh Ibra kenn du ci gam-gam la di ci jéem a dendanoo yow yàllaa la ko jox yàllaa la ko jox waaye ku lay sikki sàkk rek na mus ta xool ba xam ki doon mu ne innal wufuuda jamian waa waaqifiina ataw di déglu tey say ndigal yaaram bi naam faal wala yuxaalifu amra man amarta fahum ñooy jaam yu dul daw du yokkat cheikh bi naam faal loolu mi melo nag ak melo yu rëy yi ko suñu borom di jagleel ak doxin yu yi mu am ak jëf yu yi ko suñu borom di jagleel loolu lay indi kon ba tey yaa di koo xam ne it gaa yu baax ñi mboolem gaa yu tar yu dëgër yi ku ca mas a song jëm ci yow it yow Cheikh Ibrahima yaa dénd ñépp daan waaye kenn mësulaa jot caw melo xolow min ataayika awlaa u damil ataw di daw di raam ba fi yow yaaram bi naam faal Cheikh lu du même porte kii moo ko topp mooy koo xam ne ñi nga xam ne tey boo leen doon tudd da nga leen di tudd ci melo yu gën a rey di leen tudd ci melo yu gën a mat yooyu nga koy fekk waaye awlaadu gërmi abidun ànda bayti gaddaa ñi nga xam ne ay gërmi la ñu woon it bu ñu ñëwee ay jaam la nekk sa buntu yow Cheikh Ibra kon Cheikh Ibra ña gën a noobale doon boroomi cir seen i maam tey bari na ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi contexte Cheikh Ibra ña daan raamal Cheikh Ibra ñooña ñoo yilifoon seen i maam bari na koo xam ne tey boo ko gisoon ñu andi maamam ba muy dee xeet xeeti loxoom buum yuñ ko yeewee ca nekkoon ña la yilifoon nag ñooñee sa maam yooyee ñoom ñoo daan raamal Cheikh Ibrahima yaay koo xam ne it ku gis li nga am ci ay melo la muy def mooy jóg di la roy waaye du fas yéene jóge wenn melo ay mbooloo yuy ñëw taxaw fi sa bunt inna lu fuuda fii waaqifina ataw di déglu tey say ndigal yaaram bi naam faal ay mbooloo ay kuréel yu bari ñooy taxaw di déglu sa ndigal te kenn du jooyoon ndigal loo digle xoola wala yuxaalifu amran man amartafahum kenn koo xam ne Cheikh Ibra na la digal nga jiwee mu dam mooy la sëñ Tuubaa waxoon ko rek ne Ibra Fall bu ma xëyoon bàyyi it àndal duñ ko baax loolu nan nga ko mën a dégg kon li muy wut koo jënd ba mu jar mu am ko moom Cheikh Ibrahima Fall ci digganteem ak Serigne Touba moo tax Serigne Ibrahima Bousso moom mbir kilaan ba muy génn dem ba nga xam ne waxatul baat bi mujj a bind ci suuf da ne kuunu ka Cheikh Ibrahima Fall loolu bind mel leen nekk leen ni ki ni Cheikh Ibrahima Fall meloon nekk leen ni ki Cheikh Ibrahima Fall ci melawoowu ak doxinu rëy am na ku ñuy wax sëñ Mor Diouf Jatti sëñ Mor Diouf Jatti ci ñi jaayante woon Mbakke Kajoor ci la bokk 90 91 bokk na ci ñi sëñ Tuubaa jëkk gërëm wàcce leen ci bi sëñ Baara ganee jamono dafa am bis sëñ Tuubaa yónni sëñ moor juuf Jatti sëñ Mor Diouf génn dajeeg Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall na ko kaay ma yónni la Mor Diouf jëtti sëñ moor Diouf dem doxi yónneenub Cheikh Ibrahima Fall ba ba noppi door a dem doxi yónneenub sëñ Touba bi bi mu ñëwee sëñ bi ne ko yow de moor yàgg nga mu ne ko Cheikh Ibrahima Fall ma yónni woon sëñ Touba ne ko baa dem nga dégg nga Cheikh Ibrahima Fall ma yónni woon mu ne ko baa dem nga mu ne ko waaw damaa dem mu ñëw door a dox mu ne ko Ibrahima Fall da noonu lay def. ndax lu ma duy mu bëgg koo këpp ndab lu ma duy nga xam ne kenn du dangaalu ci wetu Cheikh Ibrahima Fall moo tax mosoo dégg menn mag mu ne la nee na ci keppaaru Sëñ Tuubaa contre Cheikh Ibrahima Fall doyee dal Cheikh Ibrahima Fall yëpp Cheikh Ibrahima Fall ba léegi barke bi tisaaroo ci kër Sëñ Tuubaa di dox ci këram mosoo ko dégg koo ma sa dégg ñu ne feeroo na ak Cheikh Ibrahima Fall lum ne la xañ naa la ko ñàkk nga ko lum la mas a xañ nit ñay gëstu ko lañ xam na koo ma sa dégg ñu ne la contexte na Cheikh Ibrahima fal dal ci kawam mbir xew am na lu xewaat ca moom loolu cëram bu rëy la ko yàlla jagleel ñim gisul seeni i ndab ah dana néew ci ndab yu mat yooyu ci digganteem ak Serigne Touba mu di koo xam ne it wa anta ajwadu aqran zamani maa déeful werante ci lii yaaram bi naam Fall mbooleem ñoñ jamono mbooleem xërnu yi siècle yi yaa ci gën a tabe yow Cheikh Ibrahima fal maanaam tabe ba tabe jeex nag dañuy wax ne tabe ci sa bakkan ak sa daraja ci raw Cheikh Ibrahima Fall dafa tabe ci darajaam te ni meloon ci sëñ bi la mel ci bokkam sëñ Mbàkke Bousso mas naa ñëw njëriñ deen di addi sëñ Tuuba Cheikh Ibrahima Fall seen Cheikh Ibrahima Fall di indi addi gis sëñ Mbàkke Bousso jël ko jox ko ko am ndax yaay mbokkam xolo wowu jàngale ak melo yooyu muy jàng moo tax defe naa marché yi boobu sëñ bu sa def ci moom bu bu ko gën a yéeme gën koo fees jafe na ca tàmbale ci xat bàyyi ak Cheikh boobu sëñ Moulay moo ko def di ca jàngale Cheikh Ibrahima Fall ak position bi mu amoon ak nim nose li tasaaroo woon ak lu waroon a yàqu lu ne ni mu ko defere te yàggees na ko woon wane wanee lu yoon Cheikh Ibrahima Fall yàggees na ko wax yone lu yoon ndax mooy kii wone yoon ndax mooy babul muridin loolu sëñ bi def ko ko nangu waaye ahlul xawaay ji jaau laazimina bu ko fi yow ku del si day ree cheikh bi naam Fall loolu kon jikko yonente bi la mushkil li shakin bishinun li bakin bari waa na ko bu daan ñëw ci se buy ñëw ci Cheikh Ibra da koy gën di wet gu ne bu ak see rongoñe day toq toqi ndax jaaxle ak fi muy fajoo nee na buy génn ëttub Cheikh Ibra ba day ree ndax faj ko ko Cheikh Ibra di faj loolu sëñ mu lay indi woon na ko ca wayam wa nee na ana kan mooy dimbaliti jirim yi way ñàkk yi ku leen di lay waxoon keroog bi Cheikh Ibra Fall faddoo mu ne ana kuy waneete mel noonu yaay koo xam ne yow Cheikh Ibra Fall kon lakal wilaayatu bay na na zaahira sa wàlli yooyu jëkk a feeñ yaaram bi naam fall te kat loo gis ci moom wilaaya ge korom wilaaya Cheikh Ibra gaa yi xam nañ ko de kum masa wax bankal sa tànk nga dëgër bopp ni ko sëñ Cheikh Ndigal doon waxee léegi bu nee law xët fuuf na la jak dukk dukk sànni ci bitti na doom ñàkk a xam bu del see guddi jot nga defaru ba jekk lal sab der naafi la yor sa péricouris di rotal ngir ne naa jéem a dem ca kaw dégraté Cheikh Ibra Fall asamaan soo jukka rom fa nga koy fekk mu laal la laal yu raw yi la laal yoon suuf boo del see xam ne mooy waaj boo leen dajee sa doq da naan sëgg na cell yooyu la boole woon ak wilaayaama jiitu moo leen ku mas dajal fi suuf kon ak wilaaya moom defe naa comme kenn mënta seen wilaaya gu toll ni wilaaya gi yàlla defal Cheikh Ibrahima Fall ndax lu lu làqu lu sori lees xamul nga xam fa mu nekk loolu tegtal la ci wilaaya gi ak rëy gi te trouvé na sëriñ bi la sëñ Tuubaa waxoon rek ne sama bu ma kenn doon xam sama jëkk Ibra Fall xam ma waye buma kenn non xam sama mujjit isa jenn xam kon ahlul balaghati wal ashaari qatiba musuñu fe wax lu melni Cheikh bin naam Fall hum yamdaxuuna faqat lakinnahum jahiluun yes nañ lii ma wax yaaram bi naam Fall kenn musta wax lu toll ni lii ma la wax ñi tag réere nañ sax lu melni ba andi ko ci Cheikh bin Fall waye khat fuqta harun fi julin wa fii karamin sa mas gi tay yaa ci sut yaaram bi naam faal yaa raw aaruuna ci ak tab ak tedd nga sa maas gi yaa ci jiitu yow Cheikh Ibrahima Fall yaa ci raw sa maas gi yaa ci raw law yam ndaxu shuara kullul kiraami maa ma wayle man yaa ma saf yaaram bi naam faal bu fekkoon ne waykat yépp dañoo jóg di way gaañu baax ña man ma jóg yow di la way yow Cheikh Ibrahima fal lu tax ma di la way mooy yaay ki ma saf kon loolu la jàngale te noonu mu meloon ñi bokk ak Serigne Touba ñëpp noonu lañ meloon ci moom njabootu Serigne Touba gépp noonu lañ meloon lu tàmbalee Cheikh Mamadou Moustapha al Karim bu la doon wax digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall Alaaji Fallu Mbakke doy na ca misaal koo xam ne dalay tudde ab sooroor yemu ca boo demee ci biir këram fekk fa Cheikh Ibrahima Fall doy na misaal te boo wëree ci biir kër sëñ Touba noonu lay mel kenn ku nekk Serigne Saliou Mbacké mu baax mi nga xam ne foo mas a tudd Cheikh Ibrahima fal ay xéewalam daanu cib dënnam ngir warmaal ko ak xam kim mu doon ak waggar ko ak cër bu rëy bi ko yàlla jagleel kenn ku nekk nangu ko loola it moo tax boo seetee biir mag ñi mbokkaloon sëñ Touba sëñ Ahmadou Fa Jamañang daana wax ne ku dul Cheikh Ibrahima Fall karayu bopp lañ nuroo kon ñëpp nangulooñ nañ ko ak jiitoom ak cër bi ko yàlla jagleel mayu yàlla na te sañ-sañ la am ci boromam yàlla ko ko jagleel sëñ Tuubaa nangul ko mbiram bokk ci ñi xam nga bis bii ñuy def muy ngërëm li ko njëkk gërëm defe naa 1927 gaaw dimanche gaaw bi dimanche yi sëñ Tuubaa fatoo altene ja ba nit ñi bisee euh, Touba gaaw boobee bokk na ci ñi sëñ Tuubaa mujj a gërëmaat Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne woolu na ko ba ñetti baat la ko Ibra Fall gërëm naa la Ibra Fall gërëm naa la Ibra gërëm naa la kon won ko melo gërëm ko ci doxee ñu nekk Cheikh Ibra Fall yaayoo kon nag loolu day wane ne doxin woowu ko yàlla jagleel may ko ko waxoon naa daal ne yàqub jàmboo ku ci sa biir daw da nga waane rek Cheikh Ibra ku ne am na loo war a lijjanti sa kër xam nga dégg nga fi man mënuñoo mënumaa yóbbu nit àjjana diggewuñ kenn àjjana loolu lépp ku ne sañ na ko loolu moom bu neex nga wax aw ma dépasse sañ na ko wax sama soxna dama cee tëlee mënu mënulu ma ko dara yow la concerné lu ne waaye mën na ko waaye góor niwu fi moom wut ci loolu la kenn du wax Cheikh Ibrahima Fall sëñ mu dem mu baax ma Cheikh lu daa ma sa yónnee jëm am masala la ngi koy laaj sëñ mu dem na ko ah bu doon ci diine Cheikh Ibrahima de danaa ci bàyyi mbirum Cheikh Ibrahima mu ne ah, niñ xamé Cheikh Ibra sañ-sañ bi lañ xam sañ-sañ ba lañ xam lam ca tek ci ngay xamé ne sañ-sañ ba lañ teg ko xamné ya nga cey laaj misal bam neex la nga ne xanaa bu ma ramon nangam ci néeg ndayam ramon nangam ci néeg baye lolo wane na sañ-sañ ba aw doxin lay jang kon fii mëna tollu rek ku jog na Cheikh Ibra ku jog wax Cheikh Ibra nangam ta bari na ci ñoon Cheikh Ibra Cheikh Ibra ngi leen di dimbalé ta ñoom xam nañ ko dañ ko mënta ñemee wax ci kaw nak xam naa fii ñoo xam ne bokkuñu sax ci yoon wi te waxtu woo waxee ñu ne Cheikh Ibra man ñoo ma waxal seen bopp ne Cheikh Ibra Fall nee na nikk sama loxo yëkkati ma ci kaw te loolu loolu loolu loolu ki ko wax bokkul ci yoon wi te man dañuy bokk ay jataay maa moom te mun bokk ay jataay damay dégg muy wax Sidi Birahim waaye après <laughs> moom wax na ne gis na Cheikh Ibra téye loxoom nag ma ne ko ah, xam naa ne xaw ma yow noo ko ma a firée ndax ginnaaw bokkul ci mu yëkkati sa loxo xam naa da lay junj rek na la feeg yaa def nii di jëm ci kaw waaye kenn laa aw tekkin la laaj ginnaaw am nga daraja jooju nag am maqaama mu nar laa de del sax ci wax si Ibrahima Fall ak nii mu mel tabañ ko wus sans complexe looloo tax fii jamono toll léegi muy jamonoy critique jamonoy média jamonoy werante jamonoy xul jamonoy wax ku am li gën da koy wone yàlla xam na ne gis nga li yàlla defal Serigne Touba defal ko njabootu Seyxul Xadiim kenn mënta am lu mel noonu baa nga gis ko kenn mënu ko am kon ndaw ñii di door a ñëw nouvelle génération bii bu nu dara fab ni ko sëñ Moustapha doon waxee léegi bu nu kenn dox suñu digganteeg liñ gëm ab murit day am fulla bu ñuy wax nga toog di déglu ay nopp déglu lay jariñ mais pour ñu convaincre la moo war a jafe kiy wax bu waxee ba yeggal nga naan sa guuxu ko fa yëngal sa bopp na sëñ Tuubaa amul morom yaraw la ko Seex Rafal moo xam ne léegi ko dugg loolu la murit di mel yor wenn melo yor jikkoy dóom koo laal mu weex lu la laal weex te waat naa ko ci yàlla ñi niy da gaa ñii ma gis li ñuy dagaase moom la ñuy encaissé ku leen gëm képp la nit kay bu mën tamu dayre wutub GIE wala association <laughs> wala nangam ngir ngeen ku ca bindoo wala sopp ay soppe ngir ñu daje di la musal dara bokkul ak daayira boo xam ne dañuy sol bleu blanc baa ñu sol noir jaune yaakaar Cheikh Bachirou Fall alxuraan ami daara di bay di ko jox di liggéey bu leen di ñaanal muy dal li ñuy bëgg ñu di ko am loolu boo ko mënta am da bëgg a ñëw ci biir nag gi bëgg koo dagg te kenn du la ku am lu wóor kenn wóoru la yi barki dem mang ci wax nitu aduna mu ne lima ma jaaxal mooy ñu bes ñi ñew di fu wote da préfet la de mo na ma ñu bes ñi bëgg wote espace lañ amul manam espace fu samp li ñi wote lañ amul ndax fekk na ñun ñu gëm yi ni gëm ba mënu ñu fexé ban bayyi ñeen gëm ñu ko fexé Cheikh ibrahim Fall même am ñu ne ci yoonu comprendre wuñ ko mas na am genn ki fa may wax ak mom ci Cheikh ibrahim Fall mo na ma mbiram lima ma ma ne ko so mom dee ma gëna a jaaxal ma mu ne ma man ma ne ah li ma jaaxal mooy yow dema woon ci geej gi mbàkki nga sat waaye dema woon ci geej gi bindoo téere yi yow defaroo defaroon te ku la gis njëmmi mbaxana sukkuraam ngay tof li nit ñi ñuy raayoo te li ñuy wax xamoo lu ko gën di xar baax daa am mu ne ma amoon ah, nañ gànn ma ne ko moo li bal lee nag li walaa bal lii moo walaa bal lee moom kay nan nangu lépp sëñ moom jàpp lépp baaba lépp rek ah mais lu mais da am am leen lu setantal diw bu ne bu newoon mbàkk yi nga ñëw nii léegi ñëpp defaraat seenu toogin dàll yi naaw mbaxana yi naaw ku ne làmb sama suut loo ko jox te moom mii bi lu tub téere geej gi mom kenn ci kàmbaroon liggey ñim ci kenn ko defoon waye yow sant gi nga sant mom mu sant ko nga sant ko képp gaa ñi lijjantiwul foo foko bokke ak noko sant yow da en tout cas mom nga rek seen nañ la naaw sant ay nañu def ku la tudd nu ray ko ku la wax dara nu xass ko ku la bañ nangam nangam lolu lolu loko gën di xarbax amu ciet mo tax leg ma deg sëriñ bu ne nañ bayyi waxtane xarbax lolu kay mom nañ bayyi jëf xarbax jukot nañ dem tole xarbax la jur jox la yobu ci daara ja ta ku waxal fi ne ta dom joo yóbbu ci daara ji fi ne mo lay gënal ñu lepp ci kër gi sama serigne la ko jox sëñ bi ko diw sëñ bi lay liggéeyal sëñ bi neena ma jambar la fi ne koku ngay yaakar bo deewon sa da ngay bëgg muju ci yow ndax negam ne ci sëñ ta te loola yaakaar jooju du tass da suñu tuba neen na du ma tas yaakar yi ma yaakaar loola tax ñu am complexe fi ne buñ toge wara waxtani waxtaane tuba neena xolal dañuy daje wara waxtani Cheikh ibrahim Fall naan nañ waxtaan ci économie légui nak économie mi ñi waxtani li ci gëna graw dañuy woy ustaas boo xam ne dañu koy jëli bu noppee delloo benn moom amul wata bu mu ñëwee amul bu mu delloo kon jëndul gasoil kooku économie suyee gu ci dara moom léegi nay lay jàngale jàngalewul économie nay lay jàngale moom nay doo nga lay jàngale ndax danaan bàyyi leen yàq gi ku amagul lu muy yàq léegi li ñu war a jàngale mooy Cheikh Ibra Fall nan la mënoon a tëniire nan la mënoon a muñee nan laa moon njàmbaaru mën a dëgër taxaw ci biir kër sëñ tubaab xuus ba bu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah na jërëjëfa sëñ Tuubaa na jaraw la ko Cheikh Ibra Fall fan la Cheikh Ibra jaar ba li am ñu jàngal nit ñi jom ak ngor ak fit ak dëgg loolu la ñu war a jàngal waaye ay pexe ki lijjanti bu ma ko jàngalee ñun ñëpp dañuy defe ne dóoree tax mu jàll moo tax ci biir yoon wi ngay gis xaftaan bu rafet maxtu mu baax borom amutum xëy du lëggee dóor rek ak lijjanti ñooñu nag saal buñ toog kan ne ca saal ba la mu bëgg la ñuy wax boo ne Cheikh Ibra Fall ñu naan gaa yi dañ di daanu kan rek nag waaye defe naa Sëñ Tuubaa waxewu ko woon noonu fekk cent mille yi muy xaar ci waa ji ak dix mille francs yi muy xaar ci nit day nangoo liggéey ngir mën a sàmm diineem te looloo ci bari amuñu lu def ñu ci bari amuñu lu def fasaale rek ëskey rek Sëñ Tuubaa mu moroom xéewali sëñ bi du jeex ci yoon wi ngay gis ku ngemee risque bu toll ni amul lu mu yilif ba noppi ne sëñ bi dama teral man sëñ bi ma teral buy nuyu sëtu Cheikh Ibrahima Fall xàmmeewu ko boppam cati baaraam lay joxe moo ne yëg gim ci yëg boppam mooy sëñ bi ñëpp la fi nekkal ah ñëpp la fi nekkal du ñëpp de ñëpp a fi nekkal sëñ bi sëñ bi daa am ñu fi nekkal sëñ bi pour pour ñëpp maanaam noonu pour sëñ bi lañ mais sëñ bi dafa am par parce que war nga ko jënd ba mu jar. ñooñaa moom ba saabixuuna saabixuun ulayka al muxarrabuun ba mënta daaraka dañ koy dalaleem xel nga bëgg a bokk ca ran gu njëkk gi ci yoon wi ngay gis fit wu toll ni bu ma fekkee woon jamono Cheikh Ibra da ngay dégg ko wax bu ma fekkee woon jamono Cheikh Ibra te kenn xamul sa sëriñ mboolem ku yab yoon wi yëbewu ko ci kër Cheikh Ibra Fall Baye Fall ci service Baye Fall ci dëggu Baye Fall ci nangoo liggéey bay fal ci njambar bay fal ci sam bay fal ci fit bay fal ci ngor waye nak hôpital bo dem amna mar ni ñu sikkale naan murit nangam bo demee ci tidiane amna fu ñoo xam nañ mel bokkul ak sàrt tidiane khadir yi amna ñu mel noonu nang hôpital bo dem amna mar Boy dugg si ci hôpital bi nak yam ci kunte teg sirio di puus jëmee ci mango bay denc nga ne hôpital bi ku fi dugg dee da nga daje ko wara a waye amna ku di ñibbi koo xam ne fi la duggon di faju boy wër murit wala ngay wër fal ñu wala ci bay fal ki dugg Séoul fii léegi di Cheikh Ndigal Fall xool ko ci extérieur xoolal ñeneen xoolal toogin nii tey di seeti Cheikh Ibrahima Fall bu ne woon kaamil bi réer na léegi ba ñu ñib ci guddi gi bind ko buñ laajee charia ñu tontu buñ laajee nangam ñu tontu ba noppi di boroomi julli di boroomi ngor bëgg sukk ak raam wane melo ñii ñoo jàngale nan la nit ñi mën a nekk ci àdduna pour du àdduna jàpp président yeeg yëpp mun mënoon am lii am ko mooy fexe ba kenn du la contre loo santaane nu loolu nag yàlla ci biir la ko ci biir nag mooy ñoo xam ne kenn xamul seen sëriñ man Baye Fall laa rek lay wax Baye Fall baat boobu dong la waxoon naa ko fi man Baye Fall laa fu ku jóg bëgg koo doon sëñ Abdou Khoudous ma sa ay tubaab bitim réew ñëw ko dañuy ay Baye Fall la Cheikh Abdou naa gën a gaaw doona góob jullit bay doon murit yegg ci Baye Fall ah dafa nekk ci catégorie gi gën a jafe da ngay nekk mu'min muslim muhsin door a tudd murid léegi nekk mu'min muslim muhsin murid door a doon Baay Faal ab jullit gëm yàlla jëfe sa diine di murid nga nekk point boobu door a ñëwaat nag doon ñeent yi ba noppi nag door a ñëw nekk Baay Faal moo tax Baay Faal moo gën ca profondeur ba moo gën a jafe mën ngaa nekk jullit te doo doon murit mën ngaa doon murit te doo doon Baay Faal Baay Faal nag boo ko doonee saan wu jëm lépp la mooy rassemble nga yépp yow yaay ki yàlla bëgg ku ni mel mooy Baay Faal